di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ko fàttali ñëpp le 29 octobre lay doon di amee ca promenade de Thiès waa ñaan nit ñi nag ñu teel a ñëw ndax euh, bis la boo xam ne euh, ñi may déglu dëkk Thiès xam nañ ci dara nit ñaa ngi xëy si di ñëw am ñuy jullit sibaar ñëw jël place am na ñoo xam ne buñ julee tàkkusaan jël place gàmm la goo xam vingt heures dana fekk tante bi fees kenn dootu am photo bu ngeen ko jàppee yeneen gàmm yi nag man ngeen a tardé du ngeen am place kon 29 octobre la muy amé ca Thiès ca promenade de Thiès wa insha allahu taala ñu tuddee ko nag sahaba yi ak soxna yonent bi ak ñi ko ak sayduna muhammad ci boppam jël nag yaayu yonent yàlla isa muy sayyidatuna Maryam doli ko ci ren jël sayyiduna Bilal doli ko ci kon guddi gaangoog bawuñu kenn nag képp koo xam ne dégg nga ko rek baa nga gis ko ñu nga la ci invité di ñaan ñëpp ñëw kuy jigéen may ñu kenn ngant nga ñëw teewal soxna yi ko tuddee képp koo xam ne góor nga yi nga ñëw teewal sahaba yi képp koy borom xam-xam kilifa diine ñu ñaan leen ñëpp ñëw teewal sayyiduna Muhammad ali salaatu wasalaam daayira yi association yi fu nit nekk daal oo nañ ci guddi gu mag googu mu ngi doon nag 29 octobre euh, ca Thiès ca promenade de Thiès waa ñu di ci woo ñëpp incha allahu Vous l'avez vu sur scène en compagnie de Wally en compagnie de Viviane, en compagnie de Karloudi, en compagnie de Kurgi, de Takaifa, du groupe Khalam, de Exoge, de Daradi Family, à côté de beaucoup d'autres grands noms de la musique sénégalaise, auquel le le cœur gospel Kandjili. Le cœur gospel Candili organise un spectacle inédit, un gros concert ce samedi 29 octobre à partir de 21h au Grand Théâtre National de Dakar. Ce samedi 29 octobre, cœur gospel Kandili, au spectacle inédit au Grand Théâtre ce 29 octobre spectacle de Moussoulen ne 100 ambiance gospel parrain monsieur Maxime Jean-Simon Diaye, secrétaire général de la présidence de la République monsieur Jean-Pierre Senghor coordonnateur national du PRODAC monsieur Manik Ndiaye ministre de la culture et de la communication monsieur Karim Fofana directeur général de AGPBE monsieur Abdou Karim Sal, directeur général de la RTP maître Moussa Diop directeur général DDD l'excellent monsieur Cherkanté directeur général du port autonome de Dakar, Monsieur Jean-Marie Sen, directeur général UKO, Groupe Saint-Michel Dakar, Monsieur Pape Maël Diop, Agence des aéroports du Sénégal, Monsieur Luxar, ministre conseiller, Monsieur Seydou ministre porte-parole du gouvernement, Monsieur Abdul Aziz ministre chargé du PSE, Monsieur Amadou Lamine directeur général ANPEJ, Monsieur Abdoulaye Dufsar, ministre de la gouvernance locale et marraine de cette grande soirée, Madame Viviane Bampassi, ministre de la fonction publique, Madame Thérèse Faye directeur général de l'Agence nationale de la case des tout-petits, Madame Ante Sardiako, déléguée générale à la protection sociale, Madame Zara Yann Cham, ministre conseiller, invité d'honneur, Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Info online 77 372 95 07 ou le 77 456 67 10. Ambiance 100% gospel le 29 octobre à partir de 21h.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 ñooy am mbégte ji leen woo ci bésu sant yàlla bu fas nañu yéen a amal ko naka talaata benn fan ci novembre la commencé ci 9 ci suba ba 2h ca stade Maris Ndiaye ay borom xam-xam yu ñu ràññee daa ñu fa waxtaanee maanaa a ngeneel yi nekk ci zikar ak yi nekk ci laa ilaha illallah ak astaghfirullah ak alhamdulillah جماعه الحمد والشكر لله دي ديغ لا تي اي ذكرك اكي باك جيمي تي بروم بي سبحانه وتعالى ابينا نتم بي محمد صلى الله عليه وسلم صلاه التسبيح دي جولي ام صلاه يونتي بي صلى الله عليه وسلم مكو باخي وون خيل ني فا عمل ñu jéxalé jotaay bi ci ñaanal way dawlé yi yalla ak yermandem ñaanal suñu rew jamm ju sax dekk ak ay yokkute ak mbolém aduna bi yépp talaata lay doon ben fan ci novembre la commencé ci 9h japp 2h ci stade de Maris Ndiaye groupe Excaf di ci woo mboolem jullit ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Menuiserie Hadi Brassoul vous offre votre émission Grâce Matinée.

le sur une actualité de la semaine Binak gis nañu li ci ëpp doole mbirum politique la ndaxte kii di premier ministre demoon na ca assemblée nationale ngir wuyu ji député yi ci question d'actualité yi nga xam ne moo ko fay xaar moom premier ministre député yi sax posé woon nañ ko ay question ci wàllum mbay mi ci wàllum marche de l'opposition bi fi amoon te ñu dispersé woon ko ak ci wàllum njàng mi loolu yëpp rek lim ci tontu mooy nguur gi mi ngi def kéem kattanam te lu ci nekk danañ ko def ci yoon ba Sénégal jàmm ak salaam mën fi am ci kaw loolu moom premier ministre si lu jëm ci wàllu élection législative ya jëm dalal na xelu ñi nga xam ne ñoom député yi lim ci wax rek moo di élection dana am ca date ba ñu ko jàpp te du tax ñu puus ko ba ci assemblée nationale ñu di Ousmane Sonko moom itam ñëwoon na fa ngir fekkee bile séance bi mu itam waxtaan yëm fa def muju ko def ndaxte policiers yi ñoo ne ko du foofa loolu moom mii di njiitu Pastef nasional sax méttit lu na ko ñoo génn assemblée nationale ñu dem ci kaawu Barthélemy Diaz moom Barthélemy Diaz mii sax gannaaw ba mu ñaanee ñu yëkkati immunité parlementaire am gis nañ ne conférence des présidents bu assemblée nationale daje nañ ngir statuer ci wàllu woowu rendez-vous bu ñu jox moo di fii ak fukki fan ak benn ci weeru novembre dinañ ci wax lu leer ngir moom Barthélemy Diaz mi mën a jàmmaarloo ak justice ngir dossier wu Ndiaga Diouf ñu mën koo régler benn yoon buñ génnee ci wàllum politique dinañ ñëw ci coow loo xamante ne démb ci ajuma ji ñëpp wax nañ ci muy coowal taximaan bi nga xam ne dañ ko ko Tahna, Nui, na ñuy lacc ba xam suñum réew dafa nek réew mo ministre de la justice di maître Sidiki Kaba lim ci wax justice dina def Yonam, li dal lañ actualité de la semaine première partie émission grâce Matinée damay retrouver à chaque fois m'a invité à ki nga xamante ne mooy def rubrique euh, actualité de la semaine Top noo def. mangi ngi sant l'un bu baax leena di nuyu téléspectateurs yi waaye itam di nuyu suñu invité di honorable député Thierno Bokoum. honorable nous ngi lay la ci plateau Grasse Matinée de la bàyyi nga nuyu Sénégalais. maa leen di fay di am am mbégte trop ak contenté euh, ñëw TV émission bu am solo bi. Mhm. légui dañuy dugg directement ci sujet bi dañuy wax actualité de la semaine on parle de l'Assemblée nationale surtout la motax tax gisunu la ci biir assemblée nationale. euh luñu metti la luñu metti la parce que xam nga ñun dañu bokku ci génération bo xamantene dañu dañu fekkee 23 juin euh nekkoon ci ñu doon xeex pour changement am ci biir assemblée nationale. euh yalla def ñu doon nek ci biti di xeex yalla def ñom ñu nek ci biir donc changement nekkatul lu ñuy kaas luñuy luñuy lu defal suñu bop la waron doon. Euh, malheureusement du lol lañ fa gis dem président euh, premier ministre dafa ñëw ak gouvernement si lo xamantene ne mise en scène la rek lo xamantene lu ñu comme combat bu ñu tëgg la rek euh, objectif bi jëmewul lenn lu dul mettre en avant une propagande gouvernementale laisser de côté l'Assemblée nationale bi nga xamantene ne dafa am ay prérogatives té sénégalais yi di leen xaar ci liguey bu am solo loolu nak mu doon lo xamantene ne ni lu lu doy war la waxnako expliquer nako euh, premier ministre ak gouvernement am suñuy ñew question yi déjà dañ koy am suñu ñewé wax lu ñuy wax def sen show dem sen yoon té ñu japp na ne euh, su dee ñom dañ bëgg léral leeral bilan am nañu possibilité yu bari notamment def conférence de presse wax ak presse bi sur les questions d'actualité, actualité joxe seen position euh, mais dafa melni ni légui dañuy daw conférence de presse yi parce que du yomb parce que les journalistes suñu ñewé amna question questions yi ñuy poser ñom duñ koy mëna tontu sooy xool récemment sax ba ñuy wax ci affaire pétrole bi ak gaz bi premier ministre dafa ñëw rek wax lu muy wax dem yoonam amul woon sax ay question donc ñoom dañuy daw contradiction léegi dañuy préférer utiliser assemblée nationale nga xamante c'est une institution pour tout simplement faire passer des messages te jàpp nañ ne assemblée nationale nag am rôle bu mu a jouer nañ ko jouer le rôle te bañ ko def euh, une autre chambre de l'exécutif exécutif loolu la ñu mis à part boycott bi top gis nañ ni def na benn publication ci Facebook bi juste avant ñuy euh, tenir yoy plénière. waaw danaka sax publication bobu mën nañu jàpp ne sax wax na ci touti parce que xamal nañu ne mom en tant que député du bokk ci ñi nga xamante ñom ñoy poser question wi ba ñëwaat ci mise en scène boobu. mais bon buma ñëwé ci feey li nga xamné mo xew bër ci al alxames ci bir assemblée nationale gis nañu ne itam député yi majorité bi mon nañ fukki question yu ñu wara poser ni nga opposition bi mon ñet non inscrit ben lecture ngay def ci disposition bob méthode bob, nga de ñom utiliser nañ ko d'abord méthode bob. méthode bu baax xam question d'actualité au gouvernement so xolé indi surtout mu confrontation entre majorité ak opposition moy surtout mu am contradiction so la France euh, nuñ koy fait, parce que comparaison n'est pas raison euh, il n'est pas dit que France ni lañ koy nous ni nii lañ ko war euh, mais si c'est France ni ñu koy euh, dans la même première question bi dire dañuy la première question bi opposition moo ou posé wala minorité wala groupe minoritaire mais du du majorité on met en avant la confrontation après ñu alterner question yi du sax parce que yaa ëppale député yow majorité bi les questions. question déedéet. fàttali na ñoom prorata boobu lañ. prorata boobu nag teguñu ko fenn xam nga damay fàtte dañuy fàtte rek ne. Euh, le premier ministre lu indi Fofu, si beaucoup beaucoup président de la république la moom moo méridien président daal di euh, désormais sax léegi dialogue bi dinañ fexe bamu am ci biir assemblée nationale parce que premier ministre dina fa dem tous les quinze jours le président mo wax loolu. euh bañu ñëwé ñun dañu dañ ko rafetlu won parce que dañ jàppoon né occasion la won pour nak ñu mëna waxtaan suñu biir xam nga dialogue soko soko waxé moy interaction moy nga wax ma wax mais bañu ñu niñ ko organiser nga xam né euh djuglu wuñ ci dialogue mais dañ ci djuglu pour monologue manam ñew wax ñom lu ñu bëgg wax utiliser assemblée nationale comme tribune pour mëna wax ak population maintenant député yi ñu tok rek nonu comme décor pour euh taral seen bëss parce que bëssu exécutif bi la au sein de l'Assemblée nationale. lool nak lañ japp na né du du lu yoon dama dama leen dama lay jox rek benn firndel pour dire que euh, main mise bu exécutif am ci assemblée nationale. Le président waxee il dañ concrétiser ça. alors que amul benn loi bu ko assemblée nationale lien relation avec l'exécutif. am ak à travers le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. nationale président de la république a le droit de l'Assemblée assemblée nationale premier ministre l'Assemblée nationale dañ prévoir ce texte yi amul fenn une période de conseil euh, euh, nous étions encore euh, question d'actualité au gouvernement il a fallu une réforme proposition de loi bi passé pour réforme assemblée nationale si l'on article 92 l'expression question d'actualité au gouvernement c'était le 29 juin 2015 alors que déjà le 13 ou le 12 mars 2015 le premier ministre commençait à na assemblée nationale sans base légale donc nous, dafa président de la république dal mom moy jox ay mom moy def lu neex assemblée nationale donc loolu lañu ñu d'accordul dañ japp na ne du majorité warul contre gouvernement kenn waxul loolu que waxul majorité na jamarlo ak gouvernement loolu amul ci benn pays mais dañ né assemblée nationale dañ am euh, constitution dafa def ay prérogatives pour président de la république def ay prérogatives pour les députés si mm-hmm. wax bu leen confronté wu ak sen président mais ligéy leen def leen sen warugar def le contrôle du gouvernement def question écrite question orale question d'actualité. def tax askan bi mais su dañuy xaar exécutif bi accueillir le premier ministre ngeen accueillir sa base légale exécutif def lu assemblée nationale dem yonam jallale loi nu dem dama jàpp ne lolu lu ñuy lu wara xolal la parce que du assemblée nationale bu mel non la bëggoon. ci fàttali ne itam euh, assemblée nationale buñ ko waxé député yi ñom seen rôle moom moy contrôler action gouvernement bi xol li ñuy def ba xam tegu na ci yoon wala teggul ci yoon xeyna sax mo waral lii ngay expliqué mo mu demee noonu. bu ñëwee maintenant ci li fa xew ci biir assemblée bi fa premier ministre ñëwé man ci fond bi. Mhm. boo xolé question yi nga xamante ne soulevé nañ ko fa walu sécurité notamment marché bi walu mbay mi ak production agricole bi ak walu autoroute à péage bi nga xamantene ne nañ ko bu duggé ci fond bi yow ban lecture ngay am ci réponse yi nga xamantene premier ministre joxé na ko ci fond bobu non wa xam nga euh lolu mo si dommage euh, damay damay fàttali ne ñun dañu yag tirer la sonnette d'alarme ñun nekkuñu opposition bo xam dañuy ñëw rek di di opposer wu euh, nonu rek pour opposer wu à chaque fois dama lay jox exemple bu ndaw bañu def loi su ba wañi loi yi bi yi bi.

mais xana day fekk ñu jox la euh, possibilité nga def ko xam nga sank sa da nga da nga wax ne do nous suñu poser question en réalité c'est pas parce que bëgguma poser question parce que dama see bokul dañ ma see manam euh ni ma mëna expliquer lolu moy soo jëlee non inscrits nga xamante ñu un ëpp groupe parce que dañ ne opposition bi trois non du opposition bi trois c'est le groupe de de démocrate et et ben parti de l'opposition mmh. ñom ñoo am trois parce que am nañ groupe mais ñu bari ci opposition bi ñu ngi fi non inscrits ku mel ni Mamadou Lamine Diallo mu ngi si non inscrit ku mel ni euh, keneen ak keneen ñu bëri ñu ngi si non inscrit mhm. donc non inscrit yi soo jëlee seen groupe daanaka mën nañ double groupe opposition bi soo gisee nombre bu ñu am. niñ ko defee nii soo jëlee benn benn non inscrit su waxee tey par exemple su dee démb am na non inscrit bu wax kooku wax démb pour non inscrit yi dina toog ñaari at ak genn wàll pour mën a waxaat est que loolu jaadu na te yow loolu rek nga am pour mën a poser question euh, premier ministre. dañ doon def question orale au gouvernement dañ doon def question d'actualité, actualité ministres dañ doon ñëw Nous ñu leen po yooyu yëpp nañ ko question d'actualité au gouvernement chaque chaque euh, mois dañuy japp le grand événement moy accueillir le premier ministre té ce grand événement là amul un rôle bu l'Assemblée assemblée du jeu parce que ñuy poser question dañuy yobbu question questions à l'avance. té ñukoy des questions poser ñu bari ci ñom lañuy bokku donc ñoom ñooy déggante seen biir posé ma si lii wax ma si lii et cetera da ngay gis sax à la fin ñu naan premier ministre ñëwaatal si lii fekk moom prévoiroon na ko déjà ci discours am. Mm-hmm. moo tax mu ne ko euh, dinaa la tontu si loolu parce que mu ngi si biir discours ba bëggoon na si ñëwaat. donc complicité boobu am entre majorité ak exécutif bi ñu bëgg koy yaatal complètement si assemblée nationale comme si assemblée nationale exécutif moo ko moom moo jaaduwul. Mm-hmm. question de fond yooyu wala mo doon gëna intéressant ñun ñëpp ñu am possibilité waxtaan ci joxe suñu point de vue dañ ko def sa question d'actualité bo xam dañ koy ibbi wala ñu def ko leneen lo xamante mënañ parce que ñun ñoy xol ñun ñoy légiférer ñun ñoy xol nan lañu ñu bëggee mu dox ñu def ko bu len fàtte ne président lu ci amone moy dialogue dialogue moy en tout cas interaction donc ñun ñoo xol ci suñu si suñu euh, suñu droit si suñu règlement nan la ñuy def ba dugal si dialogue boobu mm-hmm. mais defuñu ko malheureusement si question de fond. yooyu eh, mais demal nga comparer d'amal d'amal Maroc d'amal France d'amal france ak fenen ñun ñoo gëna cher cherle autoroute lu ñuy fay. nan la ay def nañ effort xaw wañi nañu li mais autoroute autoroute la dafa am kenn sax kuma ne mais ñu man luma ma jaaxal si suñu route yi moy danaka matière première yi ñuy utiliser yépp pour defar route amna na Sénégal. carrière beeg yoy yépp Sénégal la am mhm. donc pourquoi mu gëna cher si yenen sous région bi ak yenen pays yo xamantene ne yoy yep amuñu ko dañ koy jéggaane indi ko donc y a un problème à ce niveau explication yi jox amul dara lu si leer soo gisee lu mel lu mel ni si mbirum pétrole bi euh, ak gaz bi mais lolou tamit leeral luñ ko parce que li lèr ba lèr moy que né décret d'application bo xamantene président génne nako dafa basé wu ci euh information yo xamantene ne teguwul yo parce que euh, euh, entreprise bu né amna expérience amna na mëna li mëna lii fekk mënu ko premier ministre Abdoul mbay lolu poser ci question ñu né ko non yo ya fi nekkoon defoon nga ko etc. non donc pour dire tout simplement que né amna yo xamantene né su dee jokkalante amna na waxtaan am population yi sen xel dina ci lèr mm-hmm. mais ñom ils font exprès maintenant se mettre à un piédestal di xolé population bi de haut ba paré nak bëgg di jallalé ñom luñu bëgg nit ñi bëgg dégg duñu def conférence de presse parce que suñu une conférence de presse les journalistes yi ñi des mën ngeen leen poser question yo xamante duñ si génn mhm. def ay débat assemblée nationale donc finalement bonne euh, logique de dialogue lañ bonne logique de débat C'est nek lolu le problème donc ñun dañ bëgg assemblée nationale avec l'absence du premier ministre parce que la loi le 29 juin 2015 dafa né au moins un mois ben yoon un mois premier ministre dina ñëw. au moins waxal sénégalais yi mooy lan ñu xam ko au moins maanaam bu tuutee ba tuuti. voilà mhm. donc benn benn benn benn yoon si si mois bi. Mhm. premier ministre war na ñëw pour def question. d' actualité au gouvernement loolu waa bu mujj le 29 juin bu ñu signé. Mhm. loolu bu ñu voté loi bu loolu la wax. premier ministre ñaata mois tegul tànkam démb dégg naa ko sax mu naan réforme réforme yi ñu doon def moo taxoon c' est indépendant ana réforme yi ana ana lien bi. entre réforme une obligation bu mu am ko loi bi wax ne ko assemblée nationale chaque mois te loolu kenn waxu ko normalement premier ministre balaa muy dugg assemblée nationale il na expliquer retard am expliquer ni tax ñëwul boobu ba léegi mais day toog heure bu ko neexee mu ñëw heure bu ko neexul du ñëw su déroulé ñu jox 10 minutes Nous ñu 5 minutes yu muy tontoo dernière question muy 15 minutes mu def presque une déclaration de politique générale def presque euh, euh, discours de campagne si

99 yi nga xamante ne député yi ñoo fa nekk majorité bi pouvoir lañu bok bokk te pouvoir ñoy décider yeen yi nga xamante ne yéen nekk pont pont yéen de pont entre le gouvernement et les sénégalais yeen vous n'arrivez pas à dire au gouvernement li nga xamanteni ne mo met sénégalais lan moy njëriñu assemblée nationale. non assemblée nationale mom mënul baña am ci réew. lan moy njëriñam non euh ci fànn yu bari la. Mhm. njëriñ bu njëkk bi bu ñuy wax ci assemblée nationale moy le vote des lois boobu moy bu njëkk parce que gis nga euh, fu mu toll nii dañu war étudier budget bi. Hmm. gis nga suñu voté wul budget bi nit ñi duñu mën a investissement yi ñu war a def si réew mi lu lu lu gouvernement prévoir et tout ça dara du si am. Hmm. il faut mu am autorisation de l' assemblée nationale. donc loi yi ñu ñoo koy voté. loi yi am na lu ñuy wax loi de finance ñett lañ am na bu ñuy wax loi de finance. Hmm. moom comme bu ñuy def ni moom na lu ñuy wax euh, loi euh, de règlement am na lu ñuy wax loi de finance rectificative yo xamante ne dañ koy dañ koy dañ koy moy moy par exemple ci bir ci bir couru euh, euh, mbir mi mën nañ dugal ay loi yo xamante ne day rectifier peut-être budget bi niñ ko voté won et cetera. Mhm. am aussi ay loi ordinaire yi ñuy voté nga xamante ne euh nit ñi dañuy ñëw si par exemple tel truc comme tay ji war nañoo gis procédure pénale ak yoyu lolu ay loi la yo xam dañ ko donc loi yi ñu ñoko wara voter mhm. suñ ko voter wul du jall dañ koy voter président de la République promulgué mais l'initiative de la loi euh, ça appartient concurremment au président de la République et aux députés Madame, nous président nous le le projet de loi non le député nous a proposition de loi Madame, député bi proposition de loi de ko euh, assemblée nationale de loolu nak moy problème bi un peu parce que amna député yu def ay proposition yu taru yu rafet mais da ngay gis ñu bloqué ko proposition de loi buñ fa jotté def mooy euh, euh, loi bu mala la wax légui ci règlement intérieur bi qui est une loi scélérate et liberticide du ma ci ñëwaat mhm. mais loi bu delloo ginnaw assemblée nationale bu delloo ginnaw démocratie la mhm. député bi amna possibilité def luñuy wax contrôle de l'action gouvernementale contrôle bi nak ci anam yu bari lañ ko mëna défé mën nañ ko def ci commission d'enquête parlementaire manam par exemple tay Euh, affaire pétro tim ak affaire gaz beeg yooyu normalement waroon nañ def commission d' enquête parlementaire mais dafa am nombre de députés yu koy mën a def euh, dafa am aussi euh, nuñ ko war a jàllale war nañ mën a def question écrite maanaam nga bind ministre bi ne ko man lii dama xalaat ne loo si xalaat mu tontu la mu nga def question orale nga xam ne ministre day ñëw répondre au niveau de l' assemblée nationale mu nga def question d' actualité amna aussi question d'actualité au gouvernement donc bëri na lu beure beuri lo xamantene voilà député bi mën nako def député bi aussi day dem sur le terrain euh, pour euh, euh, rendre compte ñëw wax mbëbëtu askan bi su pré ministre yi ñëwee mun mais écoutez li ni dañ ko wara defal li ni dañ ko wara a wax etc ya ngi indi question bobu parce que mhm. Ousmane Sonko dafa wax ni député yi amuñu amuñu waruñu lekk li nga xamantene ne il mérite pas de manger l'argent du contribuable. wa loolu la wax dama euh député assemblée moom mënul bañ am député am na liggéey maanaam loolu yëpp soo ko defee daanaka dem dem tëddi nelaw rek moo si xaj maanaam bokk ñun am nañu liggéey. Hmm. Euh, mais volonté politique moo moo war a indi rupture damay dégg sax ñu naan euh, code de conduite bi dañu def code de conduite nit ñi ñoo déggo pour défé nonu foog na dégg ko démb président de l'assemblée diko wax mais code de conduite amul si règlement intérieur bi waxtané pour jéem a jëf teg Euh, nan la ñuy euh, distribuer les rôles loolu lu jaadu la waaye su dee da nga ko def au prorata du nombre loolu waxtaan amatu fa parce que loolu calcul mathématique la rek ku ne mun nga def au prorata xam ku ne ñaata minute lay am donc loolu donc code de conduite bi amul amul amul njëriñ su boobaa. mais volonté politique moom sa à dire que man maay majorité man la ñu fal man maa war a diriger assemblée nationale man maa war a xool ñun ñii majorité bi nan laay def ba assemblée nationale bi am rupture. manam ni lañ doon liggéeyee man ni la bëgg a fu mu ni ni ma bëgg a liggéey mooy impliquer davantage l'opposition, parce que tay da ngay xool vice président yépp si kaw ba si suuf amul kenn ku si membre de l'opposition. opposition loolu mosu woon am amul kenn ku si membre de l'opposition. dañu accaparer lépp donc réunion bureau yaa que le président du groupe bu bu bu libéral et démocrate moom moo fay teew parce que moom dañ koy permettre mu participer mais groupe sooy xool bureau bi en tant que tel amul membre de l'opposition xam déjà loolu c'est un problème. alors nga man en tant que majorité man may def rupture yi man may jiital fexé gouvernement bi ñu contrôler ko man may fexé bañu tek ay commission d'enquête parlementaire ñu bañuy ñuy rek dañu commission d'enquête parlementaire sur les décrets d'avance. Mm-hmm. mais ba légui mbir momu jallul amna ño xam def nañ ay proposition de loi ba légui jallul donc volonté politique boobu mo manqué mais assemblée nationale mënul ñak ci rew mm-hmm. maintenant luñu soxla moy am. Les députés yo conscients dañuy conscient de leur rôle def les ruptures qu'il faut pour que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle parce que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle mais machallah parce que dina aider gouvernement dina aider population surtout dina len téwol si askan euh, di sen prévocation ba gouvernement bi amna yenn yo ne def du nationale du Sénégal mom joue un rôle am bu baax. non non non j'ai un rôle non non rôle comme nous ko joué c'est très clair. parce que nous, def ci bilan jàmmale ci bilan euh, voté nañu tant de loi mais loi yoy defoo ay loi yu ñu une la parfois procédure d'urgence lañ koy euh, c'est vrai que la loi n'est sous président indé procédure d'urgence c'est de droit d'accord mais député bi su ko neexee mënu duma président indil nga ma code code euh, bo boo xamante ne 700 articles comme code des impôts mm. mais 600 articles nga des procédure d'urgence député bi xana war na mëna jël article par article lire ko xol lu ci nek ak lu ci nekkul su ko indé procédure d'urgence nga ko mais président li mëno ko jàllale procédure d'urgence c'est pas possible mais su dee moom dafa né ah sama droit la parce que loi bee moko may mais yow député bi nga ne voté wu wala nga né nañ ko défat nouvelle lecture wala nañ ko wat indi wat ko parce que dañu soxla xam lan la ñuy voté mais luñu bëgg ñom jàllale rek ñew jallalé ko euh nit ñi tok xol président groupe si président ba groupe ba yëkëté ñu yëkëti et cetera lolu doxulul rew et ça c'est c'est c'est vraiment dommage. sank yaa ngi wax euh, honorable né mbirum pétrole beeg gaz bi waron na def euh, enquête parlementaire nga ne defu gis nañ ne loolu itam yéen ñi nga xamanteni yone bok opposition waral na ngeen def ben coalition tuddé ko coalition Manko Wattu Sénégal ba amalon marche le 14 octobre lolu indi won na sax demb ci débat yi wat won na fa. parce mhm. que marche bi namu mujjé ñew nañ ci xëy na peut-être lool yow di ci ñew waaye man ci li poser sama question honorable modi gis nañu ne euh, préfet dafa amone ben arrêté bu mu defoon daan ne kat fi ngeen di tàmbalee ba fi ngeen yam ñu dégg ki nga xamantene mom lañu la ñu dénkandi euh, coalition Manko wat Sénégal di malik Gakou né loolu ñoom duñ ko def parce que ñu lool itinéraire yu du ben démb ñu dégg ministre de l'intérieur bi nga xamantene mom mo yor karangé réew mi wax euh ministère de l'intérieur c'est à 150 mètres du palais de la république donc te foule bi ngeen àndaloon mënuñoo nangu c'est pas sécuritaire ñuy nangu loolu ba am député yu ko wax ne ko boo xoolee Maison Blanche la fa am yëpp am na fa waaye dañuy ñëw ci affaire Ousmane Ngom mon fi tegoon ben arrêté bo xamante ne kenn mënul def marche ci digënté bobu yeen gën bëggoon ñu maylako est-ce que yeen jappu leen ne préfet bi bu leen mayon gën dem ba ministère de l'intérieur mon préfet bobu du respecter arrêté bi nga xamante ne moom fi Ousmane Ousmane Ngom def. waaw xam nga déjà lu ma trouver domage vraiment très très dommage très très dommage mooy suñu réew suñu demee ba toll fu foo xamante ne nit ñu demee ba fal la jëloo repère lu dul ñu nga remplacé loolu c'est très dommage parce que nit su ñu fi jëlee ñu la rempla ñi nga remplacé pour teg la fi c'est pour nga changer mbiri la pour mu am rupture la foo déggee premier ministre mu naan affaire bi yéen a ko fi tegoon. si l'on basé mais c'est dommage parce que si nous ñoom lu ñu fi tegoon yëpp dañ ko fi changement am mais honorable nous un contexte euh, sécuritaire bu am solo. non contexte d'accord nous avons un contexte sécuritaire. nous mhm. yëpp accepter. mais marcher ça n'a absolument rien à voir marcher, marche euh, manifestation le boo le droit la constitution c'est vrai que nous devons encadrer. effectivement mais li xew keroog ñom fees seen bopp ñoom violé ñoom seen décision dama lay wax barrage buñu tek ñom yegul sax si place Doudou ndjay Rose place Doudou ndjay Rose moy place bu nek si RTS. Mhm. ñom avant place Doudou Ndiaye def nañ fa seen barrage tek té ñom dañoo autoriser woon place de l'Obélisque ba place Doudou ndjay Rose képp ko xamantene ne nañ la lacrymogène wala japp nañ la wala sonnal nañ la si digënté bobu lañ ko défé

le euh, ministère de l'Intérieur, c'est à 150 mètres du palais. Je ne pense même pas d'ailleurs. Euh, il faudra que nous mesurions <laughs> Mais si c'est à 150 mètres du palais. Mais c'est aux alentours quand même. Mais si c'est à 150 mètres du palais. Donc l'Assemblée nationale, c'est à 100 mètres alors. Mm. Ou à 50 mètres du palais. Mais Assemblée nationale, président Ablaï Wad, autorisé fois marche, mm-hmm. autorisé -hmm. autorisé manifestation. Le 23 juin, c'était autorisé. Le 23 juin, c'était autorisé. Donc, ils sont dans une, dans une logique de recul démocratique. su dee kii mu ngi autorisé à cinquante mètres ou cent mètres yow nga ne doo autorisé à cent cinquante mètres ça dire que yow da nga delloo ginnaaw démocratie te nag yoruñu opposition bu irresponsable yoruñu opposition boo xamante ne dañuy ñëw pour casser ou quoi que soit ñun xalaatuñu loolu réew mi soo ko bëggee defar doo ko yàq te musuñu leen wan loolu aussi def sa marche ba ministère de de l' intérieur su dee am na looy jébbal ministre bi nga jébbal ko su dee am na looy wax nga wax ko dellu tranquillement kan la war a gêner kan la war gêné am pays yo xamantene devant le palais de la république sax nit ñi dañ fay taxaw tous les jours di manifester ça ne doit gêner personne parce que loolu dafa bokkon si lo xamne dañ ko kasson pour nit ñi di am droit di mani parce que nit mom nang ko baye au moins mu exprimer wu la meilleure expression nak c'est la c'est la c'est la manière pacifique lolu té lolu lañ loolu si lolu lañu jëm si lolu lañu nek tout le temps ñom ñoo indi fitna ci mbiri jël ay lacrymogènes yo xamantene ne waruñu ko door ay nit parce que information yi ñu am euh, Yo, ce n'est même pas destiné à ces genres de manifestations nous ne voilà nous opposition opposition est une institution l'opposition opposition c'est dans la constitution mm-hmm. nous ñu du président de la république du parlement nous de l'opposition donc opposition da nga un opposition garde du corps dañ leen di wutal ay nit yu leen di yu leen di yu leen di protéger. pourtant référendum mais opposition boobu nga ñëw yow di leen door ay lacrymogène. pourtant référendum de mars bi opposition bi amoon na benn statut buñ ko joxoon gis nañ ne ba tey jii nii itam am na ci yenn yoo xamante ne euh, euh, nekkagul maanaam kenn voté gu ko wala kenn euh, concrétiser ko. dinaa ñëw ci marche bi. <laughs> ki nga xamante ne moom moo di. ci promesse yi la bokk. sa leader politique di Idrissa Seck. gis nañ ne marche bi keroog euh, leader yu bëri euh, sonaloon nañ leen am na ci ñu bëri ñoo xamante ne gaz lacrymogène sonaloon nañ ba ñu tasaaroo woon mais dafa am loo xamante ne man dama ko seetlu en tant que journaliste moo di Idrissa Seck dafa ñëw ci marché bi ak euh, oto xawma dafa xamoon ne contexte bi dafa nara a metti ba loon wàcc daal am na ñu bëri nag ñu ko décrier ci loolu parce que dañoo ne booy marche militant yi nga xamante ne ñoom nga convoqué nga ànd ak ñoom da nga war a wàcc jàmmarloo ak ñoom ngeen ànd waaye gis nañ ne moom ci otoom la nekkoon di jëfaal nekk ci wetam ak yooyu loolu est-ce que nekkul itam ne yéen waa réew mi euh, militants yi ngeen mettre en avant xaw a retrait tuuti ci marche bi. non loolu amul. Euh, top je te dis man maa ngi woon si si si si cortège bi bien entendu soo mënoo jóge sa kër dox ba foofu xanaa balaa ngay yegg yow do <laughs> fekk nga essoufflé donc oto ngay yóbbu ba yegg foofu ba mu yeggee foofu wàcc na xam nga <laughs> c'est même dommage les gens ont dit qu'il a trébuché mm-hmm. ba pare ne wàccul oto bi donc il a dû trébucher dans sa voiture <laughs> ça pose problème donc il est il est descendu mm-hmm. dafa wàcc dafa dox di dox di dem ci marché bi mais Idrissa Seck a été tellement ciblé tu avais l'impression que nous avons dañu un mot d'ordre ci moom Nous comprendre ñaata lacrymogène la ñuy à sa direction Et nous ba évacué peut-être que nous avons été filmés, mais il il fait pas des leaders oui qui ont plus souffert dans cette affaire là parce que c'est des gens ciblés xam nga moo tax parfois suñu naan ay diw dafa daw man ay rey moom moo jàpp dama ne vraiment il faut qu'on arrête ça quoi gaz lacrymogène nga dóor dóor ko un leader ah. mu nekk en vie continuer liggéey bi bu muy def ñi ñu am espoir si moom ñu gënal ñu fekk ko si leneen parce que ñëpp xam nañ ne loolu soo ko soo ko soo ko soo ko jëlee carrément mun na la yóbbu fu ne na mun na indi lu ne parce que Euh, lo si mënti wax euh, nit ku ne ak état de santé etc. il y' a beaucoup de choses yo xam nit ñi dañu ko jël ça en compte suñu sànni lacrymogène donc donc euh, nañu bayyi lolu les leaders ñëwoon nañu pour taxawal dëgëral démocratie Sénégal Idrissa Seck mu ngi fawone il a été ciblé il a été sànni nañ ko ay lacrymogène et tout demain su naree amant dañuy taxawat parce que luñu japp moy c'est des acquis démocratiques tay suñu rew amna lo xamantene xamante ne nekkutul discussion du woon du débat nañ fi waxtaan déedéet duñu waxtaan si ay aki aki da koy teg fële soo ñu mënee yokkal comme lu wax gumba soo ko saraxul bu bu bul jël yalwaanam soo ñu mënul yokkal si suñu démocratie bu ñu wàññil parce que tàmmoon nañ di marche tàmmoon di exprimer wu di joxe suñu position di wax sa xalaat fu mu doon da ngay wax je profite de l'occasion d'ailleurs pour ñaawlu le fait que Ousmane Sonko euh, à l'Assemblée nationale mu si tribune bi di bëgg a jël note ñu fi note amul ben texte ci règlement intérêt buy interdire nga tok ci tribune bi di jël note amul donc c'est c'est illégal il il c'est de l'abus de pouvoir. ma charge fofu rek nga continuer touti rek ñu jeexal cadre gogo gis nañu itam mom Ousmane Sonko mom bimu génné bëgg wax ak presse bi. ba côté tribunal kenn mënu ko won may mu wax nak fu taxaw policier yi fekk ko fa nekk do fi lolu yow ban lecture nga ci def. mais on est policier ça dit que tay diñu bëgg imposer nit ñi. Euh, euh, lo xamantene ne fi won am une forme de dictature déguisée li ma neex la xol tay ñaata yoon la fi APR di manifester ak seni sen groupe ñom ñaata yoon lañuy def ay meeting ay lune heure bu len neexee ñaata yoon opposition di demander pour manifester par rapport ak ñom lu def mën na wax defuñu sax 1% pour cent si seen par rapport ak ñom lu def mais ñun suñu benn bobu dañu koy bañal motax tax quand le premier ministre eh, le ministre de l'intérieur wax 1,6 1,3 des demandes rek man 720 1,49 720 720 opposition waxu euh, c'est très bien de wax marche opposition ça c'est différent donc. Euh, c'est très dommage loolu dañ koy naxar donc un état policier malheureusement lañ bëgg a teg ci réew mi man maay def waaye yow waroo def man maay wax waaye yow waroo wax mais loolu dafa dafa ñaaw sax parce que euh, démb euh, dafa kenn ci député yi ku ne am na fukk ak xawma ñaari sénégalais yu yu yu régime bële faat mais nu Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté mhm. mais su waxee loolu ñooñu mais moom war na mën a xam ne ne ñooñu lu tax ñu faat leen mooy dañoo bëgg Sénégal évoluer moo tax ñu dem si manifestation yi dañoo bëggoon rupture am dañoo bëggoon assemblée dox dañoo bëggoon démocratie am ñoom amuñu droit delloo démocratie si même suñu xool si mémoire ñooñu rek voilà la vérité. Euh, balaa ñu jàll ci beneen actualité de la semaine jëm ci wàllum ñoom Barthélémy Diaz pour conclure top waaw kaaw Barthélémy Diaz nekk sa collègue ca biir assemblée nationale monsieur honorable gis nañu ñaan de son immunité parlementaire ngir ñu mën ko nous lolu néna dañ ko ko sax yi xamay nak néna ñaari kenn mayu ko ci pour may ko ko yow ban étude d'abord nga def ci Barthélémy Diaz depuis arrêté un bàyyi woon ko ci régime bi ak ci ban contexte lañ convoqué dossier c'est très important lan moo waral booba tey attewuñ ci ba contexte bien nga xamantene politiquement gis nañ position bi les médias. am ñu convoqué waat bi le dossier. waaw euh, dañu dañoo indi ñom seen menel rek euh, seen menine parce que malheureusement justice mom ba président Macky Sall togué ba légui manam buntu justice parce qu'il faut différencier les choses. Euh, magistrats yi ñu en tout cas jàpp ne ils sont autonomes ils sont libres dañuy prendre ay décisions mais dossiers yu yegg si si buntu boobu exécutif moo ko président moo ko téye je ne boppam wax na ko nee na euh, tey ak interview buñ ko defar mu ñi ils seront surpris suñu xamone euh le nombre de dossiers yo xamantene ne mu ko téye jëlalu ko justice donc mom moy xol lu muy yóbbu justice ak lu mu dul justice loolu moy déjà problème problème bu am suñu rew

donc ba may ñëw man maa ngi ko fekk mu ngi def ay interview parce que dañ nekkoon di def réunion à la rado ñu ne ñu ngi attaqué mairie Barthélémy Diaz ñun ñu quitté foofu ñëw fekk si ko foofu si mairie pour jàppale ko donc bal perdu mënoon nañu dal euh, mënoon nañu peut-être ñun si si seen si jàppale ko def loo xamante ne tey ñun la ñu war a juger donc contexte boobu la woon contexte boo xamante ne ne euh, man mii j'étais ciblé euh, plusieurs fois euh, ay nit menacé etc donc contexte est la ñu contexte est que les gens étaient menacés ciblés etc ba mbir mi amé ñu ngi jalé ku ku ku en tout cas mhm. euh, parce que kenn bëgg ko Barthélemy bëgg ko won kenn euh, mais ba amé dañu taxawone 2011 le président Macky Sall ci ak ñu 2016 même affaire bi la dara changé wu si pour pourquoi ñun ñu taxawaay ñu war ko changé mënul nekk boobu mooy bu njëkk bi beneen bi mooy contexte bu ñu ko defee parce que wax nga ko bi Dias dem na ba demandé ñu lever immunité parlementaire yàgg na demandé procès parce que procès moom si boppam daf ko arrangé ñëpp la arrangé ñëpp d'accord nañ si loolu kenn waxul mbir mi nañ ko buñ ko jugé moom waxu ko keneen waxu ko mais fii mu ngi nekkoon ak ñoom dañu jël affaire bi téye parfois sax mu mu xaw a ne d'accord ma si lii sax nga gis le lendemain ñu yónni seen benn nit mu taxaw si presse bi ne bon Barthélemy amul lu muy wax ndax affaire dossier bi loolu la ñuy wax épée de Damoclès si tubaab jël benn épée rek teg ko sa sa sa sa bopp nii ne soo moytuwul rek mu mu dugg sa bopp. donc yamal. waaw loolu est-ce que jaadu na si réew ñu jël dossier di ko def épée de Damoclès di ko menacer ay nit ay citoyens ñoo xam ne am nañ droit def politique am nañ droit far fu leen neex. tay Barthélemy Diaz dem ne bokkutuma ak liberté ba sa participer marche manko bi jour ñu indil ko convocation ne ko dañuy dossier façon bobu ñu bëgg justice ba ba ndax war nañu président de la république ku ko neex la ku ko neexul mu si mom mu la la jox la sax ay et pourtant tuddoon nañ la si lii ak li ak li ak li. Amna na ñoo xamante ne tuddoon nañ la sax si CREI ba ñëw ci mom jox na leen ay responsabilité jappalé leen Wa loolu ba kañ ngeen foog ne loolu du injustice loolu dañ koy xeex loolu d' accord ñu si. maintenant si levée dina jappalé président de la république par exemple ma ne si levée si levée immunité parlementaire bi rek nu mu si bëggoon wax moy mom dafa def une demande symbolique pour man c' une manière de montrer qu'il ne s'accroche pas à l'immunité et c'est rassurant mais il ne revient pas à un député de demander de si que la devons statuer mhm. le maître des poursuites On nous un dossier au niveau de la justice Nous avons demander. demande effectivement nous la demee demande pour nous lever l'immunité parlementaire moo Assemblée nationale national si si statuer ok honorable est-ce qu'il est possible est-ce que nous avons un amal euh, procès équitable cas où Barthélémy Diaz sans ñu xam ñan ñooy commanditaires mais justement problème bobu mo am euh, parce que tay c'est dommage. parce que mom wax nako tay am nañ ay vidéo yo xamantene président de la république Macky Sall ak Ousmane Tanor Dieng ñoom ñoo nañ procès bi mëna am waye kat pour mu équitable faw ñu xam ñan ñoy commanditaire mais ça c'est clair c'est-à-dire que euh, xam nga euh, Barthélemy demul kër kenn demul fenn dañ ko fekk si. si méréem ñi ñëw fekk si ko dañu leen fa indi mais ñi leen fa indi ñooñu amuñu responsabilité dama lay wax benn dama lay jox benn exemple <clears throat> wax naa ko fi yàggul ñun Malick Nawel Seck ba mu déposé lettre au niveau du conseil constitutionnel dañ ko jàpp tëj ko deux ans ñun boobu ñu ngi nekkoon jeunesse du M23 ñu ne ñu ne lettre boobu dañuy dem déposé ko conseil constitutionnel jour bi ñu ko waree déposé dañ dem daje benn restaurant.

avons une responsabilité d'ailleurs loolu moo fi war parce que état de droit la ñu nekk nit ki soo leen ay contradiction politique mais l'un rek moins am mooy ngeen dem élection Les population yi respecté au moins même si su lay sages tous les jours les populations, yi suñ koy jéppi doo ko mm-hmm. donc tu n'as pas à agir à travers tes propres moyens tu n'as pas à recruter des gens nous, nous recruter aussi nous bàyyi nous ngeen di dem ñu di recruter di leen déployer. Nous yi di éviter parce que yoon fii dafa am yoon c'est l'occasion nous yëpp ñu jëlee ko fi parce que mënuñu rek comme ça Barthélemy Barthélemy Barthélemy d'ailleurs euh, nan la mbiri demee kan moo rey etc. l'enquête va le va va va le va va va le démontrer parce que nous, nous duñu ay enquêteurs duñu justice duñu ñooy def procès bi donc bu ñu gaaw te wax lii wala lële mais lu leer leer mooy ñooñu dañ leen fa indi dañ leen dugal si ay oto indi leen fa. foofu en dehors de ça naa la ñun ñii ñu ngi doon ñëw pour défendre ko maanaam su ñu tombee woon si mbir mi ñun ñii mënoon nañ si gaañu mënoon nañ ñu si faat mënoon na nekk ay xeex mënoon na nekk lu ne parce que coow ay du yem si bopp borom soo yëkkatee pour def ay xamal na yëkkati nga rek mais xamul fu muy xamoo fu muy mujj. ñom bañu dem peut-être xamuñu woon ne lii dina fa am mais ñu yëkëti ay bobu ñu indi loolu ñu ñëw togn mais ñooñu effectivement ils sont responsables té ñooñu dañ leena wara xam dañ leena wara sanctionner et c'est ça c'est ça qui est normal Euh, dernière question rek avant ñu lay tàgg Thierno Bocoum looloo fi war a jug naka la fiy jugee ni ñu war a dindee. lan si li nga wax léegi li nga xamante ne moo di état boo xamante ne c'est lui qui prend les dépenses moom mooy commandité moom mooy def nii coow li di bëri yaa ngi ko wax léegi dafa war a jeex. non dafa war a jeex. naka la ñuy non dafa war a jeex complètement d'abord d'abord dañuy am gàcce trop si euh, ñoo xamante ne dañuy dem euh, demander suffrage population yi. Mhm. wax leen lu ne ñëw def leneen. Mhm. loolu lañ am gàcce. parce que loolu mënul continuer parce que nit ki li li li mu la wax rek ngay mën a amul kenn kuy def stage pour nek président amul stage amul amul amoon nga si CDD mën naa ko déedéet président da ngay ñëw rek donc li li ngay wax yow loolu nit ñi di japp le plus souvent mhm. nañu bàyyi di wax nit ñi lii dem di def leneen loolu moo tardé réew mi dem nañ ba léegi euh, nit ñi amatuñ sax confiance si votel nit ñi mais nañu ñi jël la responsabilité di sanctionner nit su defee dara loo xamante ne ne waru ko def dès la première occasion sanctionné ko bul croiser les bras. bul toog sa kër comment sanctionné bu nekkee li ngay wax ni ñi nga xamante ne ñooy ñu ngi toog boo defee offense tëj nañ la yeneen ak yeneen tëj nañ la leneen dal na sa kaw léegi loolu tamit day ragaloo Sénégalais yi pour ñu révolter. mais Sénégalais waruñu ragal Sénégalais ñoom moom réew mi ragal waru fi am mais suñu maam yi ragaluñu woon ragal moo warta am waruñu jël réew mi bàyyi ko si loxo kenn muy def lu ko neex. su jaree manifester nga na ngeen génn en masse ngeen manifester. pacifiquement souveraineté populaire. ah souveraineté populaire. souveraineté la souveraineté appartient au peuple. Mhm. on parle du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple tout revient au peuple. le peuple ne téye mbir yi si loxoom su dee dañoo am loo xamante ne jaaduwul nga war ko kaas génn leen en masse su dee ay lacrymogène le ñëw leen ngeen jël ko parce que nguur mënul dëkk si sànni ay population lacrymogène su dee élection la bul toog sa kër.

parce que ñun ay démocrate lañ vraiment <laughs> loolu dama bëgg mu leer fo eh, amé mandat dañu bëgg nga yeggale sa mandat si digënté ba dëng-dëng yi ñu koy jubbantee moy manifestation yi mm. def nga li waro ko def dañuy manifester wala population yi génn nañ wala population yi kaas nañ loolu lañu nekk di def kèn waxul dañuy rocci nguur gi parce que mm. dañ ko fal pour 5 ans donc yow so démé ba loolu mat population suñu suñ gisee ne ne def nga ay dëng-dëng yu bëri def nañ lu ne jubaloo ko dañ la war fii di war a Maintenant, dañu wara sanctionner mais si les populations ont am réflexe croiser les bras day des problème il faut que nous dem sanctionner c'est ça qu'il faut donc loolu que nous gis ne c'est que am ans day parce que loolu tax d'ailleurs ñun ñu bëgg élection libre et transparente parce que si vous yow da ngay def say ñaawteef ba dem sax comploter pour que la population yi légitimité bu ñu am pour voter nga biaisé ko dès le début en enclenchant un processus pour xamantene ne lendeum lëndëm da ci am ça pose problème parce que la population yi su dee dañu bëgg jamm su duñu def ay manifestation di casser et loolu alhamdulilah loolu nañ kon ne di ñaan mu sax ci réew mais au moins may leen possibilité ñu mëna sanctionner heure buñ ko bëggé

ñooñu des démé ba commencé nous ñu ngi commencé wa di jitu si loolu yépp tay Sénégal jarul ngay sori Nous Gambie bi Mali bi Nous ak fenen da sax doing business nañu Gambie moñu raw donc nañu suñu bop nañu remettre en question suñu bop des japp émergence émergence fenn c'est dommage. merci beaucoup Nous fàttali honorable député Thierno Bocoum tey moo nous invité grâce matinée top. Nous lay mot de la fin La ñu koy waaw xanaa di sant vraiment honorable député ci disponibilité bi ñëw nañu waxtaane lu bari ak di nuyu sénégalais yi ak xanaa di sant équipe technique bi nga xamante ne moom la ñu àndal ci liggéey bi léegi. honorable ñu ngi lay jaajëfal ci invitation bi ñu nangul. merci maa ngi leen di jaajëfal tamit di nuyu vraiment encore une fois ñu ñu doon seetaan di leen remercier di leen encourager. ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy waxtaanee ici tout de suite.

ne kii nga xam ne yaramam wéru ba nga xam ne bakkanam xaj na ci ëmb bi ki nga xam ne yaramam wérul ba wérgu yaramam sax mën na ci am problème et ñi nga xam ne itam dañoo nekk ci viol maanaam sàkku ak inceste maanaam sëy bu daganum ñooñu itam ñu ngi ci waaw Maputo bi loolu dañu bëggoon Sénégal itam jëm ci avancé ndax problème mu santé yi ñuy gis ñun ci lopitaan yi mu wàññeeku bu baax. ndaw pencum réew mi am wàllug am solo lool ngir nit ñi a jot ci avortement médicalisé fii ci Sénégal ñaax nañ leen ci wàllu googe suñu sukkandikoo ci député Awa Dia Thiam dinañ def seen kéem kàttan ngir loi bi ñu mën koo assemblée nationale xam ngeen ne déjà 2004 woon na loi Euh, loi si santé euh, de la reproduction. waxtaan bi tamit ni ñu ciy waxtaan ni ci docteurs yi di waxtaane assemblée nationale it waxtaan na ci ndaxte association société civile yi dañ ñu ciy woo ñun askan wi lañuy teewal ñu xool ñun nga xam ne ñun ñooy xaatim lu waaye ci anam bu mu gënee naka lañ koy defee donc it ñun it ñu ngi ci AJS tàggat nañu ci lu bëri ñu ngi ci waxtaan bi nguur gaa ngi ciy waxtaan ah ñun it en tant que assemblée nationale ñu ngi ciy waxtaan. soxna yu bëri yi nga xam ne dañ leen sàkku wala seeni waajur ñoo leen sàkku li ci bari dañ ciy jëlee ëmb ñi taxawal loi bi nga xam ne dina tax ñu mën a def avortement médicalisé dina wàññi bu baax li mu ñi nga xam ne dañuy ëmb te bëgguñu ko ak loxonge gi nga xam ne yàkkum bi da koy def ci seeni waajur ak askan wi. Luus dinaa noo def

waaw ñu gis ni tamit am na ay kaw euh, inceste yoo xamante ne mun nañ ne def ko sax dagan na waaw euh, dagan na moom xam naa ne oustaz moo ñu siy tontu euh, dafa nekk sujet d'actualité ñu war a wax ci avortement médicalisé ndax bir na ñëpp ko ba léegi Sénégal adopté gu ko donc si Sénégal biir yàqu ko daganu fi yoon tamit mayeegu ko mm. te xam nañ ne du du biir yëpp la nit mën a nangu Euh, kenn rafetlu ko mais nit mën na jëlee ëmb ci ci ci relation bu ko neexul. wala ñu violé ko wala boog waajuram tëddee ko mu jëlee ci biir. ah kenn ñaanu ko mais si oustaz si genre ëmb yooyu ban solution nga ci mun a indi ndax yoon may warul maye fii ci Sénégal ñu mën ko dindi parce que ay ëmb la yoo xam ne après. boko ko yoree tamit boko bu doom bi juree tamit di gis ko xam yene yéen bokk ak mom papa wala sa mag papam rafetul. wala la tammi judd sax dinañ ci gis complication. waaw. waaw xam naa bala ñuy mhm. ñu sante suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamni ni ñu may wir ak temps bu ñu mëna téwé fi fekk leen fi. الحمد بسم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على المتحلق على المتعلق بصفاه بصفات مولاه سيد الوجود وقبلة الشهود مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa asxaabihi wa xulafaihi wa man wallahu amma baat assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum bu ñu santee suñu borom comme ni ñu ko waxee léegi di leen nuyu mm-hmm. di nuyu suñu mbokk yi ñu jàkkaarlool rawatina suñu jarbaat bi nga xam ni moo ñu moo moo moo moo war a jataay bi di julli ci sangu sang muy sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam bi nga xamni lepp lu war lu war mom la soxna si nga laaj ma laaj bu am solo mhm. diine amul lu mu waxul xama fi nek ak baña xam mhm. wala mana leral ak ñaka leral mhm. waye ci kemta layu minute yiñ fi am suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ni ci saar yi nga xamante ni saar yu gàtt la ci avortement bi ma laaj mais ki nga xamante ni nii mën nañ ko dindi ni ko sariya waxee am na lu ci d' accord ak lu mu ci d' d'accordul ak niñ koy defee ak niñ ko wër te defee lu mu d' accord. lan la d' accord. boo ma laajee ni da nga ma laaj ni ma avortement ki papaam waaw dafa am sàkku ba mu jëlee ci ëmb. ba mu ci ëmb. Mhm. ak ki magam sàkku ba mu mhm. jëlee ci ëmb. mani sariya d'accord ci fenn parce que xam nga li tax sariya d'accord. sariya ci mu dindi ko sariya d'accord ci mu dindi ko. Uh-huh. parce que xam nga li tax. Uh-huh. wa izal mawudatu suilat bi ay zambin qutilat mooy ki tax ñuy maanaam ëmb bi ñuy dindi. di ko di fexe mu bañ a am kii tax maanaam ki ñu koy dindil lu mu def ban bakkaar la def bañ ko bañ bañ ni kii du fi amee loolu alxuraan wax hmm. way zel ma uudatu su ilat bi ay zambin xutilat biir bi ñuy yàq kiñ koy yàqal lan la def ki ñu koy yàqal xale bi ñuy dindi ci boppam lan la def ki ñu koy yàqal mooy yaay bi xale bi xale bi ñuy dindi léegi question bi biiru yaayam hmm. lu mu def Euh, ban bàkkaar la def bañ bañ bañ ni du fi ban moment lay commencé nekk xale parce que balaa muy nekk xale dañu ne dañu ne euh, spermatozoïde la bu fécondé ovule. soxna si bu ko parce que dañu ne ci géeru alxuraan euh, am na ba benn temps ci la ñuy soog a mën a di nga def par exemple ba ëmb ba am juróomi ñaari weer. Mhm. wala nga ba am ñetti weer ci la ñu mhm. naan li nekk sa biir nit la. Mhm. mais bu nekkee ci diggante avant ngay egg ci benn weer bi est-ce kooku nit la ba dindi ko ndax dagan na parce que nee nañu boobaa nen lay doon. moo tax ma wax la ni am na luñ ci nangu ak luñ ci nanguwul mhm. waaye du ma nangu ñu ni kii papaam moo ko def nii wala magam a ko def nii tax ñu ni matagul dara nañ ko dindi maanaam ndox la ndox su mag ni ko yàlla jàngalee ndox lay doon ndox mi am lu mu def ba nekk lumbu deret lumbu deret bi am lu mu def ba nekk suux suux woowu mooy am lu mu def ba commencé ñu monte si dideeg yax yi mais léegi loolu soo ko bàyyee woon boo ko bàyyee woon foofu soo bañ ko dindi. nit lay nekkee. jeex na léegi ci alxor ci charia ban moment. Mhm. Mhm. la ñuy jàpp ni loolu nit la. loolu nit la bu nekkee ci ndox bi la tamit dañuy jàpp ni nit la. te matagul euh, te te deret bi ñëwagul sidit yi ñëwagul. waaw kay foofu dañuy jàpp ni tamit nit la. xam nga dañuy wax yonent bi alayhi salaam dafa wax ci hadis ni xale bi maanaam nit ni muy jëlee am dafay nekk ndox. quarante jours mooy ñeent fukki fan. kon à partir de quarante jours lay nekk nit. ndox bu nekkee ndox quarante jours. Mhm. nekk aw lumb. bu ñu nee mi mooy mooy mooy mànni bi waral doom. Mhm. mooy dafa mooy mooy ndox ne quarante jours. Mhm. bu nekkee quarante jours. nekk lumbu deret quarante jours nekk aw suux quarante jours muy ñaata mois quatre mois bu suma jumulee. waaw quatre mois lay doon. léegi ci la ñuy monter commencé monté yax yeeg siditi siditi léegi moo tax ma ne est-ce uh-huh. que ci islam uh-huh. kaña la la ñuy jàppee ni loolu nit la uh-huh. est-ce que dañuy bàyyi ba quatre mois yi jàll ñu soog wax ni nit moo nekk ci biir non non xam nga fi ñuy bu fekkee ci l'islam la bu nekkee bu ndox ndox la ñuy wax waaye bu dee ci tubaab dafay wax ne a tant que formé gul ba man mën koo xam mais mais lu bi moo moo moo dese moo dese leer mooy Euh, si sama man li ma comprendre. Hmm. mooy bu nit ki jàppee ëmb rek yoon diine daganul mu yàq ko. waaw waaw mu gën a gàtt waaw mu nekk ndox ak mu nekk leneen. waaw yàq-yàq la. waaw donc xam nga li tax. Mhm. lay lañ bëgg indil foofu lay. lay lañ bëgg lay mhm. bëgg a lay ni lii a tax lii a tax lii a tax par ñu war ko yàq. Mhm. parce que ki ñu war a yàqal am na fu saree d'accord ñu wax ko mais kooku mooy kan. léegi nag si yan la d' accord. Mhm. ah d' accord waaw kay ci yan yàq laa d' accord. Ah. ki nga xamante ni médecin seet na ko doctor seet na ko wóor ko ni kii amul kartan pour yor ëmb. amul mm. doole pour yor ëmb. ca bu ko yoree mën bakkanam mën na ca xaj. Mm. bu boobaa suñ mën nañ ko dindi. Mm-hmm. Serigne ah, d' accord nañu loo d' na ci loolu. waaye doo xool rek mu neex la doo xool mu neex la rek nga ni non dama koy dindi. te gàcceeg àdduna. moo gën gàcce balaaxe <laughs> yaa ko wax de jeex na ca gàcce am na fu muy yem gàcce àdduna man man na maa am problème doo ko bu ko waxul doo xam mm-hmm. te mu ñëw fii di jëflanteeg yéen xam nga am fekk am na gàcce mm-hmm. waaye bu dee alaaxira nag ñëpp koy xam léegi nag yow yaay seet nag ñaari gàcce yi bu la ci gën waaye bu ñu waxee avortement médicalisé avortement am na ba pare. Mm-hmm. mais ñu médicalisé ko gënul sax ñu def euh, euh, avortement clandestin yi nga xamante ne dafay jur tamit yeneen gàllankoor maanaam tey jii nekk nga en bëgg nga ko dindi nga làqatu dem dindi ko anam ni ñu koy dindee baaxul anam ni ñu koy dinde tegul ci woon ba dina la jural yow tamit ay loraange léegi médicalisé bi est-ce que gënul sax ci côté boobu. li may mooy leen. sariya daal d'accord damay damay nungul li ma wax ba pare. lu sariya d'accordul lu sariya d'accordul mm. kon bu làqatoo bañ a làqatu ñoo ci am parce que xam nga li tax yow mii làqatu di ko def mën nga mën sa bakkan mën na cee xajaale ci booba xarul lañ lay lañ da ko dindi fële nag lan lañ lay jàppee. bu nekkee da nga dindi da nga dem ñu ci médecin yi ñu dindi la ko. ñu dindi la ko ah. benn ñoom ñu bu dee yow ah, rek la. yow ñoo kii kii kii par dem dindi làqatu. Mhm. ba ñàkk ci bakkanam. ak kële dem toog médecin dindi ko ba ñàkk ci bakkanam. waaw ñoo bokk àtte. waaw xam nga li tax xam nga li tax ñooy bokk àtte mooy ñee la ñuy def teguñu ko ci yoon moom itam li mu doon def tegu ko ci yoon. waaye léegi man bëgg naa ñu ñëw. ci ñooy ñooy bi rek. man bëgg naa ñu ñëw tamit ci mhm. Euh, lan la diine wax ci waajur buy jëfand sàkku doomam wala mag buy sàkku rakam lan la ci diine wax. li ci diine wax ba mu ko waxee yàgg na. Mm. parce doom parce que li ma lay xamal leen gis nga bakkan. Mm-hmm. imam Ghazali dafa wax bu am solo. Euh, wala boog ngeen baal ma waykat la wax ko wax ko muy ñeenti abiyaat daal ni iblis wa dunia ونفسي والهوى فكيف الخلاص وكلهم أعدائي مجيت الإبليس ورجيت بكان موري جيت لكن نيت كي دافم ورا يلي بكانم بل ليلا يالا ماي صاح غا يار سا بكان با سوكو دو تي اوبل لكن كي تيول بكانم إبليس داف كوي ديف بال ديكو ديكو فوتبال parce que bu bëggé su ko lor utiliser ko ci bakkan bi lay jaar def potong loolu auto gis nga sa bakkan nga wara mana ba paré su téye sa bakkan mom nga aduna manam jaru ma leen nga aduna moy aduna ya ko yilif bu mhm. la wul lu jaarul yoon bu sa bakkan mom nga sa banex ya. muy passion bu mhm. la defloo lo xamante ni so lo yep nak soo ca téyee iblis mënul ci yow dara parce que am na ci ñoo xamante ni ci nit yoo xamante ni iblis mënalu leen dara parce que li tax mën a mënalu leen dara mooy li ñu fexe nañu ba li leen wala gàllankoor yëpp teg nañ ci baaraas seen diggante ak seetaan ba seetaan bu ñuy du am bu ñu jógee liggéey ma man mhm. pour ci xam-xam bu ñuul ba liggéey boobu jàpp ma mhm. ku waruloon egg ci man egg ci man <laughs> ndax mu jaral ko ko ah damay laajte mu jaral ko ko ba loolu fekk la ci mhm. léegi loolu nag di ko daganul ba tey. déedéet sharia parce que xam nga li tax daganu. Mm. xam nga li tax ba tey yow yow julit nga ab julit bu muy sàggane ci boppam. Mm. ba ba nit di ko manipuler di di di ko def loo maanaam di ko liggéey. ca ca ca yàlla boo xamante ni soo ci soo ci xëyee bés bu nekk gisuma ku lay mënal dara wala loolu. wala ah, bu la bu la mën d'accord ma d'accord parce que. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam xam-xam bu ñu amoon na benn moment boo xamante ne jàpp na ko. ci gën ci mbindeef. ñun nga xamante ne ay doomu aadama rek. dañoo ñëw suñu jiw mënuñu ñu rëcc. xam nga li foofu nekkul mhm. dañoo sàggane suñu bopp. Mhm. parce que tey li ñuy wax rek li ko tax a jug ba mu ne man tey jii bu ma toogee wala euh, góor mu jaral ko ba mu dem topp jigéen ba liggéey ko ba àgg ci moom lu mu ko jaral jaral na ko nekk ko jigéen ci mu sàgganee boppam ba liggéey bi jàpp ko du ma d'accord ci loolu moo tax ma ne la ki nga xamante ne mooy gën ci mbindeef sëgam loolu jàpp na ko ñun tamit mënuñoo rëcc nekkul sàgganee suñu bopp ordonnance yu yàlla bi noonu mun nañ ci ne parce que ñaata yoon ngay gis ñoo xamante ne dañuy muuru wala ñoo xamante ne ñu ngi topp ci yàlla def ginne dugg ci ñoom ak yeneen ak yeneen ce qui veut dire que ni nekkul ni suñu nekkul suñu suñu ñàkk suñu ñàkk far kii euh, sabablu mhm. nekkul suñu ñàkk farlu mhm. moo tax mu dal ñu mhm. bu ñu dalee rek c'est parce que euh, noonu la waroon demee wala moom li mu buggoon am na ko tey jii ba ba egsi ci man ba sàqu ma ba ma jëlee ci loolu léegi loolu tamit dindi ko daganul hmm, parce que daganul ah, waaw vas-y hmm, hmm. parce que xam nga li tax daganul yonent bi alayhi salaam bi mu ko dalee qul a'uuzu bi rabbil falaq qul bi naas la yàlla wàcce pour mu nekk ordonnance am mm-hmm. ma lay wax ni moo tax boo ko gëmee lu la waaye def parce que lu tax ma wax loolu mooy saa yu xëy yonent alayhi salaam wax na ci xadis ni nit ki saa yu xëyee bu jàngee xul wallaahu ahad falaq ak naas af ko ci yaramam mm-hmm. waaye ci kaw ni nga koy jàngee ak yow ni nga war a mel oustaz ñu ngi lay jaajëfal waaye laataa ngay dem rek dina am benn question bu ndaw bu ma la bu ma lay laaj njaaloo ci ku góor ak ku jigéen ñoo bokk àtte. njaaloo. ci góor ak ci ku jigéen ñoo bokk àtte. ñoo bokk àtte. lan ci kaw ñu ku jigéen ki am na borom kër ku góor ki am na soxna ñoo bokk àtte. bu ñoom ñaar ñëpp bu ñu amul borom kër amuñu soxna. ba tey àtte bi ci lislaam benn la. waaye li ma jaaxal mooy. lan mooy àtte bi lislaam dafa ne. Ah, ah. lislaam dafa uh-huh. ci àtte bi njaaloo pour ñu mën a wax ne njaaloo am na faaw ñetti nit te ci seen bët ñu bokkul ñeent foo xam ne bokkuñu fu ñu jógee waaye loolu ku ko fay xaar nag ok léegi nag gis nga moo tax gis nga charia bëgg gum bëgg yàlla bëgg gum bëgg nit sutura nit doomu mm-hmm. aadama mm-hmm. moo tax mu ni dangay fex dem ba tiim ko dangay dem ba tiim ko xol ma sàmba ñëw gis leen ñu nekk ca oh. ma dem ba ñëw gis leen ci nekk soxna Xadi ñew nonu soxna Kumba ñew nonu bu wa wala wala tamit kiñ ko def man nako ko <laughs> parce que xam nga li tax man na dem ni ah man kat dem ci imam ba ni man ndialo bo ba dañ koy atté parce que mo yobbu bopam way fekkee du am de. han fekkee. té wa mako ko du am fekkee du ah, am. way am. xoolal non d'accord du am way tamit wala bo yow nga dem ba ëmb so ambi bi ëmb ba la am. Ah. mais duñ la ray ci bir ëmb ba dañ lay bàyyi nga wasin ba dom ji deuguer non ah ma yaakaar ni bu nekké takku ñu leen ñi ñaañu bi ñu wara dur dóor ah, question la ah ay bu fekké am nga mus nga am borom ah, kër bu fekké mus nga am borom kër ah. bo divorcé dañ lay ray muy ko goor ki muy ko jigen ki dañ leen di waaw ye ñaa ñëpp lañuy ray amul wérante bu fekké fekkee am borom kër xeyr rek ku ci mus déggal xeyr rek def ko dañ lay dañ lay ray waaw ñeneen ni dañ leen wara dur ayat ñom yat ñoom hmm? ñaar ñëpp nag buñ ñu amul jëkkër amuñu jabar téeméeri yar yoon azani wa zaniyatu fajlidu kulla waahidin minhumaa mi'ata jalda kuy dóor alxuraan baa nag wax wax jaam sóotu nuur léegi kan mooy imam wala wala ku ku imam jox ndigal imam mooy ñëw ci ci ci ci jàkka ji ndaw fayu acca ni diw dóoral téeméeri yar fi dóor mu fayu de waaye nag bu fekkente ni am na lu des bu fekkee tuuma nag mhm. ca amul lu leer ki ñu tu ki ki ki nga xamante ni moo tuumaalaatee moom la ñuy dóor yeer moom la ñuy dóor. Hmm. moo tax gis nga bëgg gu sariya maanaam yàlla bëgg bëgg nit sutura boobu fii du ma ni du am de waaye du ma ni dégg ku ni gis naa ko. xanaa kay jamono ñëw wane ko wala ki ko def dem ni man la. waaw léegi yow imaam tant que amoo jëkkër dañuy dee rek. Hmm? boo ñu door la. ay waaw tant que amoo jëkkër dégg nga waaw tant que amoo bu góor tamit bu ku góor ki tamit noonu la. ay rek ay waaw ay door rek la. 500 bu ko Saya 500 timir ya saya 500. timir ya ah saya saya. 500 saya 100 ah 100 kañ bëri 500 juróomi téeméer la. bu dee ci ci compter 1 2 500 saya juróomi téeméer. waaye Saya dee ci bi saya. dee ci loolu beneen beneen beneen. 100 dóor boo defee beneen ñu doon 100 dóor Saya defaatee saya doon 100 dóor. saa boo defee sans doute imaam ñu ngi lay jaajëfal di la remercier ci invitation bi nga xamante ne ñoom ñoo ko wuy ci émission Gas Matinée. di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. di eh, gën a sant sama jarbaat bi nga xamante ni moom laa fi indi moom moom laa moom ma fi indi di leen sant yéen tamit di leen ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeel seen liggéey te yokk seen xam-xam ak ñi ngeen ko bokkal wa axiru daawana an alhamd maa ngi tàggoo de wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim merci beaucoup oustaz ci noonu nag الذي غادني لا كريم عليه ما أروم يسير شكري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وهو شكور نصري وتأييدي وحفظي لدى العداد فهو نسير man mi di wax ak yow duma politicien te bon ni ma gisee dëkk bi jamono yi ah wax dëgg yàlla affaire bi yëngu na lool si wax ji wax ji bëri na détails yi bëri na te li si ëpp am solo li si am solo mooy ñun ñëpp dañu war a liggéey liggéey boo xamanteni ni tey jii ah, sama gis-gis mooy ñu bokk nday bokk bokk baay jubo ànd mais loolu bu amul si réew rek réew mi moom toujours day daal di doy waar moo sama gis-gis mooy eh, dégg naa ñu naan temps yi war nañ joxe ay milliards yoo xamante ni pour waa APR ñi naan ñeneen ñi naan ñeneen ñi naan ñeneen loolu amul solo li am solo surtout mooy liggéey xaalis boobu tamit fekk nañ dañ koy jox ay nit comme waa APR wala beneen beneen ah, parti te dafa ñu si loo xamante lu am solo la bon. amul sens daal li am sens mooy premièrement liggéey te liggéey mooy lépp waaye jël lépp ay ay milliards bitim réew indi ko fii def ci loo xamante amul solo vraiment man gënalu ma te gënalu la gënalul kenn si réew mi. suñu réew mi tey la gën a sax tey la gën a métti boo xoolee père de famille sa doom ay inscription sax doo am sax xaalis boo lay inscrire inscrire ndax métti waaye dëkk bi ku ñu xam ne senegal ku ñu ku ñu wax Sénégal dafa neex rek kooku moom. xool bi nekk soo xoolee xaalis xaalis bi dégg yëpp loolu c'est zéro parce que ñoom dañuy wax xaalis te doo gis xaalis boo xoolee auparavant dëkk bi da daan dox xaalis da daan circulé si dëkk bi mais léegi boo xoolee xaalis circulé si dëkk bi amul loo xamante ne maanaam président bi dañu teg suñu bët quoi lu dul ay construire ay bâtiment mais bâtiment kenn du ko lekk da ngay entreprise loolu mooy doxal dëkk dëkk soo bëggee mu dox da ngay créer entreprise créer ay euh, ay liggéeykaay nit di ci liggéey di xëy liggéey mais boo tabaxee ay tali tabax ay autoroute mais yow dafa tax nit ñi nit ñi avancé loolu taxul nit ñi avancé parce que loolu loolu mën la rapport ak ak pays occidentaux yi ñoom dañuy créer entreprise créer ay ay institutions yoo xam ne dañuy dañ ciy liggéey. waaye sant yàlla rek ah dëkk bi metti na ci kaw bu fekkee ne amuloo xaalis tam hmm, laaj na ndimbal ci lu bare bari ah, waaye tam jigéen itam am nañ jom ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax. ngeen dimbali leen ñu ngi góorgóorlu ngeen ñak leen dimbali ñu ngi góorgóorlu parce que amna yo xam do xaar ku dimbali su dé am nga jom da ngay wut da ngay jappalé sa bop daal dem ya xam ndax da ngay ya ci banque yi yaay xam xëj ne da ngay am lo dimbali ba nga mëna dem parce que ligi xalé yi xam nañ jom dañ ci yëngatu bu baax wa li doxul dé bari na ndax so amul xastam tam liggéey waaw mom for example mu ngi melni comme banque yi ak xit ni nga soxla ndimbal amna ño xamne dañuy soxla ndimbal way lu tax du ñu euh, pour dem pour lepp nit wala pour ñaan surtout amna ño xamne amuñu ne mënu ño dem ñaan légui nit yoyu war nañ di len sét ba xam naka lañuy def bu mën leena dimbali mu nekk sutura te duñu ñaan xana gën leena ñaax rek ñu gëna nga am góorgóorlul nga ñàkk góorgóorlul parce que lool moy tax nga mëna dem dimbali sa bop dimbali sa njabot lool la am sama mbokk jigéen lu leen di wax ndax ñom xamna dañuy gor gor ndax ku ci nek bo xeye juk nga fajar nga teggu ci yoon bi liggey wala bo jugul fajar sam am yeneen activité yo liggey yo xamne da lay sutural kon nak dama leen di ñaax ñu gën gor góorgóorlu ci lolu wa senegal mom ñun ñep ko bok quoi te xam nga ku ne war nga fexé mu jaar yoon surtout te xam nga wax bu bi fay day jaxasse comprendre nga bon bu bu ñu wóoloo yàlla di des mooy xam nga ñun ñëpp ñu doon benn kese. Sénégal ñàkk déggoo bi rek moo tax demul mais bu ñu déggoo nag yàlla xam na ne lu ñuy wut yëpp dañ ko yaamu. Macky normalement waroon na liggéey ba mu jeex du am problème du am xëccoo du am dara parce que moom doomu Ablaye wàdd la te Ablaye wàdd lu nice la fi def moom wax dëgg yàlla ñun moom rëccu nañu ni fi góor gi jógewee te ñu ngi souhaité doomam ñëw. fayagal ñu suñuy coono parce que kooku liggéeykat la li nekk ci baay bi moo nekk ci Karim Wade sénégalais yi xaw ma xam nañ ko xaw ma xamuñu ko. mais bés buñ ko falee la ñuy xam ne booy bi moo mën sax papam parce que xale la am na ambition te il est reconnu mondialement te njiitu réew dafa laaj nga am connaissance ak bailleur yi ak ñeneen ñi ci kaw Ablaye Wade xam-xam boobu nekkoon ci moom moom waru woon nangu Ablaye Wade di ko rëcc. daf Ablaye ko waroon teg ci wetam mu doon premier conseiller am xajoon na feneen ba ki yonent bi xaalis bi ñu def ci stade bii nii rek di tabaxal ay mbër yi ay mais loolu xaj na feneen foofu stade boobu bu taxawee ñu ciy liggéey du ñu bëri te temps milliards yooyu moo nañ ci créer benn entreprise pourquoi pas ñu ciy liggéey affaire bi loolu kese la ñu dumbali gars yi bàyyi xel ne yomal xiyaam mu ngi ñëw xam nga lu fi waay jël bu yomal xiyaamee di nga ko yenu barki alxuraan lu waay jël fii rek bu yomal xiyaamee di nga ko yenu man Ablaye maa ko wax. Euh, Célestine tey gis nañu fu nekk wax nañ fa wax nañ ci wàllu politique waaye itamit commerçant yi yëkkati nañu ay kàddu. Mhm. yëkkati nañu ay kàddu donc suñu mbokk jigéen ñi euh, nee nañ instant bi ñoom amuñu choix. Mhm. parce que euh, ñu ngi xëy di daan seen di dem di ñëw. di jàppale seen njaboot parce que am ñu lu loolu. Euh, jamono ji gis nañ ne instant bi dëkk bi métti na métti bi nga xamante ne ñu toog di xoole di xaar seen jëkkër ñu defal leen alors euh, choix bi mooy dem def seen commerce même su nekkee petit commerce. Ah parce que suñu amul leneen du lu ñuy def dañuy toog di xoole. mais en fait loolu mooy indi après casse casse yi dul jeex parce que après loolu indi dañoo fàtte buntu kër yi nit ñi amatuñu fuñu tok trottoir yi dañ koy utiliser. là là n'est pas la question parce que instant bi jamono ji dox na dox gi nga xamantene instant bi nit ñi xalaatuñu sax ay non damay damay teg table sama buntu ko wala tek table buntu ko jàmm may xatal wala genre des trucs comme ça ñu ci tollu jamono ji nga xamantene jamono wut lañ tollu mm-hmm. alors euh ñu ñëwati ñu waxati encore comme ni koy waxé sa su euh, euh état bi gouvernement bi politiciens dañu wara conscient ci ben affaire moy lan que les gens sont fatigués ils sont vraiment fatigués amuñu leneen dul euh, def seen activité bopp xaaruñu xaaruñu xaaruñu état xaaruñu kenn. Mhm. parce que suñ ko dee xaar duñu duñu duñu am lu ñu bëgg wala duñu duñu duñu def seen àjjana wala duñu def dara ils n'auront li mu jàppale ci yan anam en fait dina doy war jàngoo amoo qualification defo dara ba pare bëgg ñu jappalé la tamit naka la ñu di jàppale maa ngi ñëw côté bobu parce que instant bi si côté jigen ñi la waxé ba paré parce que suma né suma né jigen ñi peut-être ñom instant bi am na ñi nga xamantene ne ñu mm. donc ce sont des des des femmes des femmes yi nga xamantene des mères de famille yi nga xamantene ñam ñoom seen njaboot seen kër alors ils n'ont pas le choix parce que euh, peut-être qu'ils ont fait des associations ou bien ils ont fait des des des des euh, ON euh, des GIE du moins mm. di xaar nous financer leen wala di xaar ñu defal leen dara pour ñu mën a au moins euh, def seen activité mais amuñu ko. parce que auparavant il paraît que amoon na mais instant a tendance à disparaître parce que gars yi talatuñ ko. genre lu ñu tal ci ñoom nuñ ko mm. waxee politique lañ tal. alors y a les campagnes qui viennent euh, en 2017 ils versent des milliards et des milliards pourquoi pour ces campagnes là te nit ñaa ngi sonn nit ñaa

Ça, je peux l'assurer. Mais on le dit Non, non, c'est vérifié. On a dit ce qu'on vient pas. Attends, c'est mm. vérifié comment mm-hmm. euh, rek état mënul mm-hmm. il faut que les gens acceptent ça. nous mm-hmm. ñi qui, ci de ci table di jaay dañoo amal état te état ko même bu on taxe de 200 francs par jour on a fay wax nañ ko fay. la état donc deuxièmement mhm. moi, euh, le ma Noir wax 5, une politique de de extraordinaire euh, fais promotion au plan Sénégal émergent c'est pas mon rôle mhm. mais euh, euh, bourse de sécurité familiale par exemple Ce mhm. c'est pas une obligation pour l'État bourse de sécurité non en plus des bourses de sécurité c'est-à-dire que Sénégal ni je connais 25 000, je connais 30 000, en plus des GIE qui sont là. Ni avons les outils aillent marcher dehors, nous, nous avons micro-jardinage pour les femmes. C'est-à-dire que y a plein d'associations qui ont inclus les femmes, qui couchent Donc, j'ai pour les femmes de qui fait que Dès que vous mettez, dès que vous mettez, il faut que les gens euh, et un esprit de dépassement par rapport à ça aussi. Je comprends ce que tu dis, mais à mon avis, je me dis que peut-être politique sociale, euh, ça n'a pas encore euh, abouti comme nous Comment Parce que si c'était bien fait, les gens n'auront pas tout le temps l'habitude de se plaindre quand ils disent la vérité. Comment Parce que un sambini, c'est pas seulement les femmes, ce sont les jeunes. Je donne un exemple. Quand je te dis, quand je te dis, quand je te quand je donne un exemple. Quand je te dis Célestine, nanga def naka affaire yi tu me ah ñu ngi ni rek di góorgóorlu. Mhm. tu vois et pourtant tu vas bien. Mhm. mais ça veut dire que ñun suñu bop ñoo am blocage au niveau de notre tête ñoo nanguwul mukk mu bax mhm. ah dina bax ah ñi ngi rek jamais on dit jamais ça va. Mais Louise, Louise, Donc, non, Louise non, attends, au Sénégal. Non, oui, oui mais, mais, je recommence par moi-même. D'accord. On ne dit jamais ça va, fais l'exemple de soo waxee rek ñuy donc c'est déjà un blocage. si ñun suñu bopp déjà d'accord je te comprends ça c'est peut-être. bëgguñu euh, c'est peut-être euh, euh, je veux je veux dire genre comportement bi nga xamante ne la genre je veux dire. boo bëggee dem da ngay bi nga peut-être sénégalais am nañ ko genre dañ la dam lay def nga ah ça va mu ngi kii wala genre comme si c'était ça ça va pas quoi comme si ça va ça n'allait pas. mais man veux ma bëgg tout le monde ne peut pas dire la même chose c'est impossible parce que. Depuis qu'on est là, chaque fois que ngay dugg ci dëkk bi ils te disent la même chose Il y a rien à changer. c'est là où il y a ah, un léegi yow tu trouves euh, tu trouves normal tey dit, mm-hmm. bu gouvernement bi état bi. di Que mm-hmm. tu ku nekk ku yor taabal mu jàppale la. non non ku yor xaar ku yor boutique mu jàppale la kuy commerce mu jàppale la kuy jaay xar mu jàppale la. Mhm. kuy defar laxas mu jàppale la. ku ne mu jàppale la finalement lu muy. léegi est-ce que tu trouves ça normal. non je parle dans ce je parle pas dans ce sens au fait man li may wax mooy. que les gens. c'est pour revenir sur ce que tu viens de dire tout à uh-huh, l'heure uh-huh. parce que euh, bu nekkee ni. Euh, GIE yooyu uh-huh. ak seen association yi ñooyu ñuy def ñu leen di financer sénégalais ci boppam sénégalais ci mentalité am ci conception am chaque jour bu état bi doon def chaque jour ran kër gu nekk mu dugal fa dépense am na ñoo xamante dañu naan dépense bi doy leen. Mm-hmm. dinañ yokk nombre de personnes yi fa nekk yokk nombre de charges yi. Mm-hmm. parce que à chaque fois pour xool comment naka naka la ñuy suruxalee état bi. Mm-hmm. pour ñoom génne seen bopp. mais ñoom dañuy faté ni bu ñuy xëy di sangu sol sen yéré récupérer sen xaliss dugal ñu ko ci état bi sen bop lañ ko légui jangu ñu wala amuñu qualification wala ñu ngi japp ci dara. Mhm. bëgg état bi fekk ci leen ci li ñuy japp def leen ko est ce que loolu du pousser sax ba ñi nga xamanteni ñu ngi góorgóorlu di jang ñun tamit bank seen loxo tok bëgg état bi jàppale. ma jox ko ben exemple bu ndaw. Mhm. Euh, il y a pas longtemps def nañ ben élément si ñuy yelwaan ci mbedd bi. ben pa buy yelwaan fii cité des eaux. buñ ko interroger il nous a sincèrement fait comprendre que ci yelwaan bi ci la amee kër ba am ci ñaari clando moom mi ngi yalwaan am na kër am ñaari clando. te mi ngi continué di yalwaan mi ngi continué di yalwaan. arrêté wu yalwaan amuñu kër amuñu clando. alors loolu sokay sokay wax man je pense que c'est c'est c' est peut être euh, euh, benn 20 de la population sénégalaise man quand je parle je prends dans le cadre général. alors man sank ñëwoon na ci ci ci femmes manam seen yëngu-yëngu même su nekké tamit état bi du ñëw di fëgg kenn ku nekk euh, genre mo dimbali la parce que yaa ngi def li xama jàppale ci jox la benn somme wala dara kër gu nekk non non man je je leur je leur ai euh, proposé d'adhérer dans des associations wala dans des GIE yi nga xamante ne vous allez présenter ça peut-être euh, à l'État wala benn genre kii bi nga xamante ne c'est eux qui gèrent ça ñu xool nu ñu leen mën a financer pour ngeen dugg ci seen activité ngeen mën ci génn xam nga loolu c'est pour les femmes alors je je je viens euh, chez les jeunes yi nga xamante ne ils sont diplômés des jeunes diplômés yi nga xamante ne ñu si dëkk bi instant bi ils n'ont pas de boulot ils n'ont pas de boulot, franchement. Et qu'on se dise la vérité au niveau Sénégal, euh, entreprise bari wuñ fi. Sous le secteur public bi amul. Public bi y en a pas. Privé bi on peut dire que ñu ngi ñu ngi def ñu ngi def euh, ñu ngi def euh, ñu ngi góorgóorlu di di ubbi ay entreprises privées euh, bon quand je dis entreprise mun na nekk PME wala grande entreprise ça dépend lu mun ci nekk entreprise sa so recruté nit ki sax di koy fay cinquante mille wala di koy fay dix mille c'est une entreprise bi nga xamante yaa ngi jàppale ki nga xamante mën ko bañ am la fin du mois mais mu ngi am dix mille parce que ya koy fay des trucs comme ça donc loolu tamit état mi donc, de di xoole ci côté bon non qu'est-ce qu'il peut faire pour les jeunes diplômés yi nga xam ne ñu ngi fii toog amuñu def au lieu d'aller d'ouvrir des salons de coiffure wala d'ouvrir je sais pas quoi et quoi et quoi pour lan. salon de coiffure ci développement parce que tu vas déposer tu vas déposer nga déposer on te donne un stage mais nga xamante c'est juste trois mois mais non renouvelable nga def faire trois mois ñu dàkk la wala nga def 6 mois ñu la ils vont jamais te faire un contrat c'est une na fi. c'est la c'est ah, ah, une ça, à dire politique d'emploi le plus fort va gagner regarde par exemple du ñu mhm. déposer nga am compétence ñu ñun un ñu am diplôme bi compétence bi après moi, jouer bu ñu des stages, trois mois Bon, barré, entreprise du la bàyyi nga dem. Louise aéroport bi nga tu les gens il y nañ ne foofu moo gën a sax moo tane ci côté ci côté euh, genre embauchement wala dara euh, j'ai des j'ai des amis qui nga xam euh, par exemple dañuy dañuy jël ay jeunes ñu defal leen contrat stage 6 mois xam lool na nag ñaata lay duré mën nga def 6 mois ñu tok nga tok 1 mois ñu jëlat la wala nga tok 2 mois ñu daat la mais contrat nga xamanté ça peut durer en euh, fait euh, stage nga xamante ça peut durer 2 ou 3 ans te duñ la mos a defal CDD wala CDI ça dépend. mais ça se passe comme ça non mais loolu da nga inspecteur du travail mu gérer la lool kooku da nga koy yobu ci yoon da nga koy porter plainte. Hmm.

pour revenir à. Poivre pour jëlaat ko yenen 6 mois. loolu de moo fi am ba deux ans. mais gis nañ ginnaw commerçante bi tamit am na ñeneen ñi nga xamante jël nañ jël nga leen comme yoy yaay dugg ci société bi tout le temps. waaw ginnaw ginnaw commerçante bi comme je t'ai dit tout à l'heure euh, j'ai pris des jeunes euh, des jeunes diplômés ki nga xamante moy salon de coiffure am di ci dan dolem ak kenen alors j'ai pris aussi euh, un. un homme bi nga xamante mom moom tam day def euh, exportation non importation genre c'est un menuisier mais day day day day importer ay ay matériel yi nga xamante ne waa code yi nga xamante ne moom lay moom lay jaayee moom lay moom lay liggéeyee mm. alors nee na côté boobu tamit xaw na métti si ñoom parce que euh, douane bi dafa cher pour indi fii euh, il te donne des ils te font euh, genre benn facture bu bu cher donc cher na ci ñoom ba tax na duñ ci génn suñu ñëwee indi seen marchandise wala liggéey si duñ ci mën a génn donc côté boobu noonu ñaan nañ ci ndimbal pour ñu wàññi leen tax yi nga xamante ne moom lañ leen def au niveau soit de l'aéroport wala des autres frontières ça dépend mhm. donc c'est vrai. Mhm. mais pour valoriser la production locale. Mhm. pour consommer li ci dëkk bi indi dara di pour di bois consommation locale boobu bala muy bala muy euh, bala muy normal wala bala muy nek li nga xamante ne euh, dinañ ko adapter carrément au Sénégal ñu arrêté di exporter au niveau du Sénégal manam li nga xamante ñoko mo suñu bopp nañ ko bañ di kay yóbbu di koy jaay feneen ñu ko bayyi fi nit ñi di koy ñu koy utiliser au kon mo gën di koy yóbbu à l'étranger di ko fay jaay pour am tu vois donc loolu su daggee rek importation def naa dina dag dina dag ñu fàttali rek euh, Célestine ak Louise la ñu dalaloon ci deuxième partie émission grâce Matinée. mu mm-hmm. yor rubrique santé jëm ci wàllum euh, avortement médicalisé waaye Flop Top moom tamit tout le temps day dugg ci biir nit ñi di kaas dañuy jàll ci rubrique cuisine ànd ca Khady ñu ngi nag ci parti bi nga xamanteni mo moo ci émission bi di parti pique-nique tay xadi la ñuy dalal ak invité am xadi ñu ngi lay dalal. nuyu naa la leena nuyu sama invité bi Mansour Beye nuyu mbokk téléspectateurs yi safoo DTV na samedi bu nekk ci grâce matinée. li ma tax ma yàkkamti di ñëw sa plateau Mansour ñu ngi lay dalal. waaw leena maa leen di fay. naka naka nga yeewoo tey. ah jàmm rek comme d'habitude ah. ah. waaye de bonne humeur. Uh-huh. Mhm. tey nag Khady tey lan la ñuy waxtaanee.

jël amateur yi tey loolu lañ na a waxtaanee ak suñu invité. balaa ñu ciy sori tey lan ngay nar a waxati ci plateau comme yow chef nga. bon moom xam nga d'habitude moom tam chef la. Mm. waaw que mos nañu ko testé a de cela sept ans de cela. bañ ko mm. ak léegi. Mm. xam ni chef la. d'accord léegi nag na nga gisee tey parti pique am. bon parti pique am naaj mm-hmm. sax. Euh, dans l'ensemble bu ma ko doon noter dama koy noter dix-neuf virgule cinq sur vingt. ah xamel la loolu moom la. <laughs> surtout lekket biy dëpp lii amul. voilà euh, <laughs> mais c'est xam nga métier bi amul xamel. non non métier bi c'est comme l'armée. ah bon waaw ah. soit da mën wala mënoo. mën nga wala mënoo. waaw ah. day xadi. mën naa ko. mën nga moom mën na. léegi mën nga ñu waxtaanee ban sujet nga ñuy indil ba la fa nag euh, la ñuy euh, xàmmee ñi nga xamante ne ñooy professionnel ak ñi nga xamante ne ñooy amateur. waaw léegi dañuy seq waxtaan bi ak Mansour léegi Jo ñu gis ne léegi milieu de la gastronomie dafa xaw a dee bu ñu ne bu ñu ne sax dafa xaw a dee dee na ndax sama mbokk yi bàyyi nañ leen de ginnaaw est-ce que du cher bi. motax tax nit ñi di tamu amateur à la place des professionnels. bon man du japp ni sax cher bi la motax ñi tamu taamu bi mais seulement ñom dañuy bëgg di am xaalis bu bari ba pare fonku ñu client yi. Mhm. négligence là, pour man. Mais. nga tuddee ñàkk fonk client. ñak fonku client bi moy yow man je me fais beaucoup d'argent sur le dos des clients. comment comment comme par exemple tey euh, man may exemple quoi. Mhm. bon tu sais que fast food beaucoup ci restauration cantine là mhm. ouais fast food mii. Mhm. fast food beaucoup de restauration cantine la. ouais kon dañ ko war a dindi dal manam. non waxuma dañ ko dindi parti là la mais quand il partie bi ci gën a ndaw. ci fast food yi comme par exemple tay malay lay jaay hamburger à 1500 fast food ti di jaay à 1200 Ouais. léegi normalement li hamburger war a am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ko amee nit ki boo ko lekkee day suur. Hmm. d'accord léegi est-ce que du yéen yéen a jafeel seen loxo par exemple ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor entreprise du ñu mën a jot ci yéen parce que tamit bu ñu ne professionnel déjà sa CV boo ko envoyé entreprise bi day tiit. bu xoolee sa CV xool fi nga jaar sa parcours yëpp danaan kii mënuma ko fay alors que day jëli ji benn nañ baal ma ci kàddu gi benn ndereñ bu ñëw mu formé ko ci biir fay ko benn vingt mille francs par mois te kooku da koy liggéey lu mu est-ce que tamit du yéen yéen a war a wàññi seen loxo wàcc seen degré ba euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor entreprise mën a jot ci yéen defalaat milieu de la restauration parce que comme tu dis tey nit ñi mënuñu xàmmee mooy fast food ak lan mooy restaurant lekkukaay rek la ñu jàppee ne moom mooy restaurant alors que noonu parce que ça des fois nit ñi da nga leen wax kañ dem restaurant ñu sañ sa sol seen talon nekk te fast food lañ jëm. tout à fait. mais c'est vrai wax dëgg la kay c'est que seulement damay tondo ci li xadi wax parce que tay da ngay xol formation restauration yombul te ça coûte très cher ici au Sénégal n'est-ce pas nit ki nga fay sa formation bu cher. Hmm. pendant deux ans ou bien trois ans ñu ngi def trois ans nga dem def stage dans de grands hôtels nga ñëw ñu lay fay lu may faral di wax. Nous parlons ma quoi mais seulement on est au Sénégal dafa am lo xamni ni buñ ko def wala ñu demi mesure la restauration du yufu tapalé c'est un métier sérieux parce que ci biir la jëm man je pense que tay ñi nga xamni ñom restauration bi Sénégal ce sont les étrangers ce sont les marmitons c'est pas des cuisiniers c'est quoi la différence entre marmiton et cuisinier. merci un marmiton moi, je ne comme par exemple. Donc, chaque jour nga koy faire des brochettes, comme par exemple parce que nous avons ngi pique-nique quoi. Mm-hmm. n'est-ce pas fii ci parc Anne avec la DTV. Mm-hmm. en présence de un truc comme ça. Mm-hmm. les tak moom chaque jour da nga faire des brochettes, des brochettes brochette bi brochette de foie. fu mu dem loolu lay defar faire. leneen tey bu gisee produits produit du mën créer quelque chose de mangeable te nga baal aussi jour sans pour autant respecter les normes d'hygiène ak les normes yi nga xamante technique de base yi la gastronomie tamit merci comme mun nañ jàpp ne jànk yi nek ci kër yi ay marmiton lañ ay amateur wa yu mag parce que bo xolé bo xolé lan moo tax ñun sun alimentation baaxul Sénégal da ngay xol comme par exemple te tay ñun lu manam lu gëna am solo ci nit lañu gëna gën fayda tay da ngay dugg je je donne un exemple da ngay dugg ci biir euh, foyer yi lañu gëna négliger mais loolu c'est grave waañ moo war a gën a set sax sa biir nekk. voilà. waaw parce que ci biir lay dugg ñaar ñoo gën a ñaar ñoo gën a. am solo ci am solo si àdduna si àdduna sax laay wax. ci mm. métier yi. bi gën a jege yàlla mooy médecine. bi ci topp mooy restauration. Mm. ah dëgg la wér la de. wala dëgg. dëgg la moom nit ki boo wéree ci ngay mën a lekk. Mm. boo wérul doo mën a lekk. te boo wéree foog nga lekk parce que nit chaque jour dina lekk. ba tax na am na sax yoo xamante ne ñu ngi koy wax États-Unis nee nañ ku la gën bonne forme moo la gën a bon lekk. merci. ah dëgg la léegi lekk ak forme ban rapport la ñu mais je donne un exemple le cas de Madonna. Madonna. Mm-hmm. ba ñu juddoo ba léegi ñu dégg Madonna. son cuisinier ça fait 40 ans qu'il est avec lui. Mm. le soir du lekk lu gras. salade rek. Mm. te moom lañ gën a ñàkkal fayda ci sunu lekk. te Sénégal fi say femme bu lu muy gën a rëy gi gën a ponk ñu ne sa sëy neex. non booba yaa ngi dee.

bon en tant que yow ba ngay soog dugg si rek takk en tant que chef cuisinier. wa déjà bu mo fi dugg ci bon déjà gis na décor bi ak lac bi nu mel fi bo fi defoon benn restaurant bu nga xamné ni day nekk ouvert au public. Mhm. ba paré nga def ay prix yu nga xamné ni ay bas prix te pourtant da ngay gagner si da ngay gagner hein. fan la restaurant bi nekk ci biir wala ci biti digg lac ça dépend. Ah. actuellement on est au troisième millénaire tout est possible. oui c'est sûr. avec les moyens de bord. waaw mhm. ah, fii même fi mën nga fi def ay restaurant ouais ni di def petit déjeuner ni di def déjeuner ñii di def dîner ñëpp di dox leen nga exploiter lac bi loolu moo ñu ici au Sénégal parce que nos sites on a pas mal de sites touristiques qui nga xam dañ ko war exploiter exploiter ko def ay entreprises de restauration. ba mm-hmm. pare gel les jeunes diplômés. parce que tamit nit ki mënoo ko jàngal ba pare doo ko teg système bu nga ramener ne nii dina mën a jëriñoo xam ba paré mun ci dundal c'est mot de la fin. di Mansour rek. di la di téléspectateurs rendez-vous samedi prochain incha ci yeneen cuisine Mansour lay ci émission bi nga remercier c'est une petite sœur à moi et puis bon. c'est une grande restauratrice aussi. Il y a eu une émission, bon, émission neex Et puis, il y a dans la semaine, gaay la wax ko gaay dégg la bëgg di suivre dégg la sincèrement dégg la parce déjà émission hebdomadaire la mm, c'est sûr place à la dégustation comme li ñuy wax rek en attendant ñuy waajal rek nga xamante ni Seydina muy nit ñi revue de presse ak Adja ci société Seydina Adja ngi leen di dalal Leena Mbaye euh, ñu ngi lay ñun tamit ñu ngi lay dalal. Mhm. di la jaajafal di jaajëfal Adja namm nañ la di jaajëfal waa équipe bu Grasse Matinée bi ñëpp. Adja Anta ñu ngi lay dalal ci Grasse Matinée. Leena maa ngi lay maa ngi lay fay di nuyu Seydina aussi di nuyu téléspectateurs yi ñuy faral di seetaan tous les samedis. Seydina ci am preuve. Leena Mbaye Leena Salif mbay sax laay wax nuyu naa la Leena di la jaajëfal di jaajëfal Adja. Mhm. di jaajëfal équipe Grasse Matinée mi yëpp mm. waa Sénégal bi ñëpp ku leen juum mm. balaa ñu yeggali partie pique-nique bi dañuy dem seetaan nag lan ñu indil tey ci témoin ak kan nga xamante moom nga demoon jëli ko waaw mooy li wax rek xam nga témoin leena day léegi njaxas la day jaxasoo amatul autorité rek ñëpp laa ci boole parce que mm. ñëpp a ci gis seen bopp uh-huh. ba tax na tey tey mooy dafa dem seeti ki nga xam ne mooy Diop ñu naan ko Modou Diop sécurité nga ko gis ci lu ne làmb politique ak ci boîte de nuit yeeg fu ne lépp lu am wàllu li nga xam ne sécurité daf ko laaj rek. Mhm. da nga ko ci gis moom nag la tey mooy seeti woon. Mhm. kon nag ñu ànd rek dem. Euh, xool élément bi li Modou Diop ci Grasse Matinée. waaw Zeyna maa ngi lay fay yaa ngi ñëw bokk plateau yëpp Grasse Matinée. nga ndongo daara la rek bu juddoo Géejawaay màggee Géejawaay. bari ay jaar-jaar nag waaw bu ñu ko bëggee def faram-fàcce mën nañ ci fanaan waaw di yëngu si affaire sécurité si fànn yu bari nag yu bëree bëri bari waaw waaw bëri na ndax coono liggéey la boo xam ne risque la lépp risque la ndax da nga yëngu si wàllu politique di yëngu si wàllu làmb lépp lu dajale doomu aadama nga am ci boîte muy lu mën di doon coono yoo xam ne nga jànkonte si yoo xam ne rawatina surtout ma làmb ak politique waaw maa ngi koy suivre maa ngi koy suivre bu baax fi ngeen koy waa samedi ak dimanche fi ngeen koy defee neex na ma trop muy parc an lii la boo xam ne day am si lu bari lu mu lay def daal ndax yu bëree bëri moo fa nekk daal. Hmm. waaw léeg nga am yoo xam ne koy enchaîner ne surtout bu politique bi ubbee nga bëgg a yëngu si politique bëgg a yëngu si làmb bëgg a yëngu si li ngay liggéey am sama liggéey bopp spécial boo xam ne place liggéeyu jàmbur la yooyu yëpp après day metti da ngay xam ne comme yaa ko dañ koy ñàkku daal dañ koy ñàkku dañ koy dañ koy dégg comme ñoo ko opté xam nga nit ki lu ne ko jaral ndax mën naa yeewu yam si comme émission bi damay jaral ma yeewu seetaan ko muy samedi ak dimanche bi mais su dul loolu nag mën naa continuer nelaw mais nag comme ñun ay Baye Fall lañ. waaw suñuy nelaw bariwul. léeg-léeg nga gis si ay ñu si jànkoonte ak coono yoo xam ne du ko jar ndax euh, mës naa yem si benn jour jarul may wax pour boîte bi fekk naa fa nit taxaw fa ñu fay ko 5000 mu dóor fa nit ba damm loxoom daf mujj dem police fi mujjee mooy tëdd na si 3 mois ñu amal ko si xaalis te boo xoolee 5 francs bu fay jaru ko kon nekk na loo xam ne ku si ne ne war nga ànd ak dal say rakk ñoo fay ne wala say mag wala say nijaay. ko ak lu mën di xew liggéey boo gis da nga am liggéey professionnel la ci démé sa xel niki borom boal bi limu bëgg du moom nga koy defal lépp ba jeex li bëgg moy client am duggu ci jàmm ci salam jëru ngay xeex jëru ngay bëma bëmaxante jëru ngay dóor képp ndax ndax yi ma si tombé yëpp bu démé bu ñu demee borom boal bi du ñëw yow seul yaa dem ak say mbokk kon nek na té lu fay wess junni kon nek na lo xamné ne boo koy def nga démé sa xel moy li ci ëpp solo xel mi ngeen ñu koy demee. parce que am ben lamb comme bu melni lamb Gris Bordeaux waaw dama ko waaw lambo bobu lambo lambo lamb boro la won suma djumul ñu ci doon xex ba japp suñu ñaar element lolou mu nañ ci sonu nek nam ci central nek fu ba ay presque ba ay 4 h du matin 5 h ñu doog leen bàyyi ci lo xamne xëccio la amul ndariñ ndax si si amna si amna si ba yag fa lolou ko diko ko jar ndax kii wax bo ñëwé ci lambo bi li taxa juk a jug dox ko kenn ki tak der bi ko taxa juk mu dox ko mais su ngeen xëccio yeen ñaar yaa tak der bi su ngeen démé ya fay dess mom bu ñëwé lamuy wax mom lañuy téyé waxam sa wax du fa nekk waxi dara ñu ne fa di jóg a wàcc yéeg a wàcc ba ay 4 heures du matin 5 heures du matin mujj mën naa ne ndimbalu suñu borom moo si tax moo tax mujj jugee noonu mais coono bu métti lu weesu kenn ku ne lañ kon coono boobu du ko jar émission bi grand matin maa ngi koy suivre muy samedi ak bi te fi koy defee ngeen gën a góorgóorlu si loolu te xam ne lii la boo xam ne nit soxla nañ ko muy parc Hann Seydina sécurité ak. Euh, Modou Diop Modou Diop waaw dama wax ci wàllum sécurité. Mhm. waxuma sax ci wàllum kii. Mhm. Modou Diop liggéeyam ci bu muy def ci boppam. Mhm. mën nga ma wax liggéey sécurité lan la laaj est-ce que doo la gisal. voilà loolu la ko parce que mi ngi koy expliqué yaa ngi yaa ngi gis mi ngi koy expliqué léegi leena gis nga euh, nit ñi dañuy dugg ci sécurité xamuñu ko yenn saa di nga gis kuy ànd ak autorité te man maa ko ëpp fuuf te teewul da koy encadré tout le temps nga gis benn ministre ànd ak waajoo xam ne nii mën nga ko fël ci sa xalaat mais boo ko jegee rek mu faagagal la. Mm-hmm. nit ñi dañuy foog nag entraîner dem sécurité sol surtout sécurité la génne noyyi di souffler ar ñi foog ne loolu mooy sécurité du loolu. Mm-hmm. nit dina dem di sécurité te du xam lan mooy sécurité. Mm-hmm. mu am ci ay problème jëlee ci ay difficultés yaa ngi dégg li Modou Diop wax. wala muy entraîner te du xam entraînement yi fan la koy teg te nee la sécurité ci yoon dafa am ay place yoo war a taxaw. daa am noo war a communiquer te loolu ñoom duñ bàyyi xel tout le temps dama yeen saa di nga ñew te do xamé yalla na leena may ñaata nga fi dégg ay nit yi fi am problème te dooru ñu ñu dara mm-hmm. parce que yow di nga taxaw ci buntu te do ki di ñew Seydina mi di ñew wala Adja mii do xam ndax magistrat la wala do xam lan la mu mm-hmm. ñëw rek comporté no xamé ci mom mu indil la ay difficulté indil la ay problème te Seydina ci li nga wax sax dégg na ko mom mo mm-hmm. Diop mu ne euh, ben jour musna am euh, ben problème ci boîte nek fa videur taxaw euh, ba problème yoy am ci mom aussi lo ci expliqué wa no ben boy lay wax sax ben videur la bo xamné dañ ko wo rek xamna rek manquant foofa manke sécurité rek ñu woko fay ko junni mu taxaw fa ba ba fa ak nit dóor ko ba dam loxe ñu defeere ko ba ba mu jël ci 6 mois d'emprisonnement 3 mois d'emprisonnement mhm. ta xam nga moy li ma lay wax seulement parce que gis nga les véritables ya mën nañ wax ni nga xam ñom ñoy indi problème yoy ñi indi problème yoy souvent moy borom boîte ak ñi nga xam ñoo leen fay tek parce que nit boko fa tegee ci sécurité mu fa fanane ba fajar loolu vraiment 5000 francs jaru ko leena bay parce que bu dé boîte bi almadi la né wala mu nek biir Dakar. la ngay paas di ko def te ñëpp xam nañu car rapide ak Ndiaga Ndiaye guddi boîte vocale la doo jot kenn mosoo gis car rapide bi circulé guddi ba heure ba mosoo gis taxi ngay jël dem ñu la fayee la fi nga dóor fi nit ba gaañ ko damm ko war koo faj ji ñaata ngay dépensé wala nga war a dem jël avocat tribunal ñaata ngay dépensé kon nag booy def sécurité war nga yeewu ba tax na nag loolu taxoon tey madame gis mu Diop waxtaan ak moom mu wax ma li sécurité laaj vraiment ak nit yi taxaw ci buntu di lan nga wara doxale ak yoy wa man mom la lay laaj léegi nee naa la da moy différence videur. hmm garde du corps ak sécurité. voilà gis nga videur videur euh sécurité ambulance bokut ak garde du corps. d'accord man sécurité ambulance la ko tuddee. waaw ah. parce que ñom kenn mën la taxaw ne la fi la défé formation. da nga ñu ko réna bay gis rakam bi ponkal na ni nga ne ko boy xana bëgg def sécurité mën la woy jappalama bëgg na nga ñu jël ko dem tek ko fa. te booy bi doo xam lan mooy sécurité mais par rapport ak garde corps balaa nga koy def dafa formation booy jaar. Mm. léegi sax yaa ngi fi gis ay euh, groupe yoo xam ne dañuy former nekk benn agence ñu am seen carte gi lépp am seen autorisation. Mm. ba ay làmb bu amee wala ay spectacle yi dañ leen di woo fay leen.

non waxuma la dara sax fi gis nañ fi ku jigéen koo xam ne garde corps la sëñ Mbacke Ndiaye ancien ministre ki koy topp ba léegi garde rapproché la te jigéen la day toilette ba rafet teg si mën ngaa doon garde corps kii mën naa doon garde corps bokkul formation la ah. wax man ñi nga xam ne dañuy yor torche di di jël seen décharge di soxla loolu comme ni Seydina wax dañuy soxla ku entraîné musclé pour taxaw ci porte parce que parfois euh, da ngay taxaw buñu ñu la dañuy ragal ñom loolu lañ leen soxla ñom seen corpulence soxlawuñu ñu mën ay technique ñu soxlawuñu ñu def yenn mais corpulence lañu soxla ci ñom raison pour laquelle c'est elle la raison parce que ah. elle a raison moy <laughs> il taxmal la mais attends bo tégué tegee na ci buntu ba dañ koy ci technique bo demoon sama koñ nak lacc bi lay di nga xam man duma wax par hasard man taxaw na ak buntu bal ba taay garde ko ba fa jot dara yëngul dama lay wax ben affaire xanaa baalu ay sey lay non déglu mo wax la rek ben affaire koñ teel a laa ne taxaw naa buntu baal ba taay ñi may seetaan am na ci ñoo xam ne taxaw naa seen buntu baal ba taay gaara wala dégul ma wax la benn affaire leena leena gis nga boo woowee ki nga xam ne boo <laughs> ah? barke Seydina Mouhamed sama turandoo bi ma yakaar adduna ak àllaaxira eh. ak màggal bi ñu jub si man taxaw na buntu baal ba taay gaara te dara yënguwul waaw dama ne xanaa matine la rek la baalu xale parce que ki nar a yëngal mu leer boo ko woowee ne ko taxawul xaaral lekk ñëw ma may la mais day calmé wala boko wowe wax ak mom mu calmé wu nako grand bul ma yàqal lii sama teranga la may ma ma liggéey bu ma jox la dara. mais day calmé wu mais bokul xam nga li ci bëri ñu duñu nak bu leeral ki mën nga defante ak mom la ko naan may ma ba bal bi jeex. mo xaar la ba bal bi jeex. waa léegi après ngeen defante ko rek. bi loolu lay yom mais ko bu nekk yeen loolu la def mais duñu. wala nga xam duñu lucide. kan dañu lisit yow ku jàkkaarloo yow ki kii xo eh, poussel fi da ngay ben puus. Eh, Seydina Seydina parce que am ñun gardien bu nekk suñu koñ. waaw sa ci bañ ñëwee. Mhm ëpp loolu bëri de. dañ ko boole poto lampe bi tax ko <laughs> laxas ko. waaw loolu am na ñii julli ji dañ ko jippi ba amna? tekki ko fa lañ ko baax. mais loolu am dama lay bëgg wax ndaw bi. ndaw bi tamit amu ci doole de Seydina. waaw léegi nag kaay ma benn affaire tubaab bu mu xoolee bu mu xoolee ndaw xool profession gardiennage xool ne mën ngaa ndaw dugg ci dafa créé sifflet. <laughs> friip ñëpp ñëw lu muy jëriñ. <laughs> Oh, oh, balaa balaa kenn di ñëw di nga di Seydina. balaa kenn dañoo ah. balaa kenn dañoo wootee kii mi ne la maanaam professionnel dafa am ci sécurité gis nga tey jii nii am na ñoo xam ne dañ koo jàng. dañ ko jàng ba am ba ba ko ba am ci ay lijaase maanaam garde nit ak gérer sécurité nit pour maanaam dara du ko jot ñooñu gis na boo leen naree woo boo leen woowee ay ay ay professionnel lañ dañ la naan cent mille journée bi wala deux cent mille parce que loolu lañ jàng mais après léegi da préféré dem jël benn Seydina bu nekk ci koñ bi. wala benn maasur bu ponkal wala nekk après fay leen ben junni wala ben tantaw bu ñu paree jënd ci sandwich han ah, ak ben butéel boisson nan ko dem tëddi 5000 bi ñu jënd ci crédit wala yoy dépenses ko non lañuy def mais nak bu fekkee da nga war a woo professionnel mo lay facturer lolu xam nga sénégal dañuy wax ne am na ñoo xam dañu nay mais pour organiser yene manifestation wala ben spectacle mais il faut mettre les mesures qu'il faut. dëgg la dañu wax dëgg. dëgg la mom lolu mooy ci d'accord pour sécurité événement bi. man bay organiser sama événement Liberté 6 nit ñi ñi ngi may sétane ma bay ma dem central wut kayit yi dem préfecture wut kayit yi wóor comme l'organisation de l'AC, Madame Centrale, mais gars, nous avons une chose, ambitieux. Et ce que je veux faire, c'est que nous avons 4 policiers, 6 la demandent, 10 policiers, nous avons encadré la sécurité. Nous avons ba ñu paree dama leen gërëm. dafa bëri ay façon sécurité moo moo nekk li nga xam ne. Euh, dafa bëri non policiers yi sax bu ñu taxawee nit ñi nit ñi kii la ñu rapproché videurs yi donc ba tey ku nekk ak sa métier bi nga jàng. te léegi sa suuf dama ci laaj. ba ci vigile yi aussi am na vigile yi toog foofu tamit ñi nga xam ne ñooy garder comme euh, banque yi wala yeneen. vigile yi dañuy nelaw nga naan lan vigile yi fi tax naa. moom laa koy wax dafa bëri sunu koñ gis naa fa gardien boo xam ne nii sunu koñ gis naa fa gardien boo xam ne nii man loolu musuma ko gis yow ngay garder yow ngay garder ba ñu sàcc sa téléphone te buntu kër gi tijjeekul gis naa gardien gardien boo xam ne tëdd na di nelaw xeex am fa ba ñu jam fa nit ba mu gaañu te yeewul gis naa ko sama koñ te nañu wax dëgg gardien yi ah mais voilà merci beaucoup parce que xam nga wax mooy indi wax Leena Mbaye merci encore Leena mm. bu fekkee da ngay garde guddi mm. nekk ci kër di garde guddi waroo am beneen métier bu dul loolu mais boo bëggee dem liggéey manœuvre maçon ak ni yéegal brique méttee ni yéegal béton méttee bu dee nga bëgg dem toog ci kër bu rëy na da ngay garde non non kooku hôtel la da ngay nelaw du garde dañu waxante deug dañuy jàll ci rubrique société an ci xaya anta à suite. Guet Ndar mu nekk goor bu spécial ci biir ndax ba pare nekk ci ville bi di dëkku Lébu mu nekk tamit goor bi ñu gën a ci Saint-Louis. fi nekk fi moy place sommière place sommière Guet Ndar waaw metti na torop ndax géej gi lañu yaakaar gannaaw yàlla yonent bi géej gi lañu yaakaar te suñu gopp yi ñu téye ni licence ji génn nu génnaal nu noo ngi bëgg jaay mën nu jaay pour dundal suñu njaboot noo ngi toog sunu yeewoo suba danoo di tappalaalu di taxawaalu di def nii di def ba am lu ñu togg suñu njaboot jox leen nu lekk xam nga loolu metti na si genn xam nga tax mu metti ñun dañ nekk si frontière maanaam loo jël nu demee nii si ñun dañu dëkk si frontière bu ñu nekk si frontière bi nii noor rek la ñu mën dem géej quatre mois la ñu mën géej si kaw nu am licence mais bu ñu amul licence mën na toog maanaam boo xoolee at mi yëpp at dem géej te bu ñu demul géej maanaam dana métti si ñun at moo géej léegi maanaam bu ñu amee licence nag six mois boo noomee licence si ñu mën dem géej gi ñëw li ñuy am si la koy am. bu dee ma xam ne licence jeex na nag mu tombé ak nawet mi toog nii sa koor ga ba léegi noo toog ba koor ga amee ko jours ba léegi noo ngi toog ba koor waaw li ñu li ñu liggéey waaw li ñu liggéeyoon léegi si noor bi nag dañ koy garder nag. dañ koy garder nag loolu liggéey si noor bi koy garder nag maanaam boo xoolee gis nga ravitaillement sa dund gu doy ceeb dawlin xam nga yëpp garder dundi. dund bi métti la dañu ak am ay bor yu jeex waaw ak ko yaakaar mu tane la nga dem leb ka pour moo ñëwee boo liggéey fay ka seeni problème bokk na ci it bu ñu demul géej du ñu am dundu bëggën ñun du ñu noor fii ñun noor bi nañu noor mais comme dañuy dugg naar du ñu jàpp di yàq suñuy matériel matériel yoo xam te ay millions lay jar bi maanaam après dañuy perte si ben ben takkusaan rek mën nañ si perte ay millions xam nga tam itam rafetul waaw ñun dal bu doon suñu sogo daal ñu si bi waaw ñun am quoi ne yëngu. mu bu amul chance do xam fu yoon école féete. yow looy jàngee dara. jàngoo école ma si géej laa nekk. géej ngeen nekk waaw. mën nu leen dugal parce que amul moyen bu que nekk lan lay laaj que géej la ñu am que géej gi gaal yi demoon bu nu demee dina am xaalis looloo tax mënuñ leen dugg xaalis sax dañ naan yaay dañuy dugg ka ne amul moyen bu nu leen dugalee na école li fa cher. loolu yëpp waral ba waajur yi fare ca Genda di yëkkati yile kàddu di ko yóbbante gouvernement bi. waaw dafa am message bu may bu gouvernement bi rek pour mu àgg direct Macky Sall mu wax ni que suñu problème ñun Gendar mooy mu waxtaan ak gouvernement Mauritanie. pour dimbali leen si licence yi loolu bu nu ko amee lépp lu mu bëgg seen seen dara dana ko te itam am na lu mu nu diggoon problème machine yi fi diggoon ba tey gisuñu si dara ñun waa Ndar gisuñu suñu bopp te ñun ku ñu jàppale ñu jàppale li mu bëgg lii bu si taxawalee lépp lu bëgg Saint-Louis yi dana am. bépp waaw loolu loolu rek moo tax loolu kese moo doon suñu suñu problème bu diggante licence yi ak machine yi. ñu jàppale tamit xale yu ndaw yi nu mën a jàng te wàññi fourniture yi bu jigen ñi di ñaan ngir seeni doom yi mëna jang jàng ñeneen ni ñoom lu leen yittel mo ñu bàyyi leen ñu dem ca geej ga ngir mëna dundal njabot gi lum ci mënti doon dal wa genda ñi ngi sàkku nimbal jóge ci gouvernement bi ajanta ci ci walum société gis ngeen ginnaw Dakar ta ñoo daal di dem ba Ndar ndax nee nañ leen société duñu yem rek euh, fii ci euh, Dakar ndax euh, Sénégal rek tu Dakar moo tax ñu dem ba Ndar fekk fa nag benn population bi nga xam ne mun nañ ne xaw naa làkk tuuti ci ville bi. fan la Guet Ndar Guet Ndar comme ni ngeen ko gisee nii. Ah. mu nekk banlieue ci biir ville bi. waaw ah. dëkk boo xam ne dafa peuplé dafa bëri ay ñu fa nekk ci ay nit te it eh, li nga xam ne moom moo ci gën a am solo dégg ngeen man xale yi sama yaram dafa daw ba ma que xale cinq ans six ans xale yi nga xam ne dix ans la ñuy am eh, xamuñu sax fan la yoon école féete boo leen laajee école ñu lan mooy école mm-hmm. donc eh, éducation foofu noonu des na fa ci guet ah. bu ñu paree it gis nga suñu papa yi lan li ñu waxaat ah. mu nekk benn problème boo xam ne ñu ngi koy dund mm-hmm. guet benn lekk ngay lekk mooy lan añ ngay def soit ndékki ndékkeeg reer xalaatoo ko xalaat baax na baax na baax na déggoo sànq chef cuisine bi lu mu lekk bëri baaxul mais bokkul ba tey ji parce que ñoom dañoo am benn benn spécialité mooy lan euh, Guet Ndar foofu dëkk bi nga xam ne euh, ku nekkul ku nekkul ku fa juddu rek géej ngay xam amul liggéey boo xam ne comme nga ne mécanicien nga wala nga ne yow euh, da ngay da ngay dem ay mool lañ ba ci xale yi gis ngeen ay mool lañ gëmuñu leen dul mool mais nag si seen loolu am tamit li nga xam ne yàq na ko parce que Guet Ndar duñu duñu sangu ak euh, as ñàmpe hmm. ak ñàmpe dafa dem ba dañoo xaw a wàllu dañ naa dañ leen indiloon euh, benn benn projet ay tubaab indil leen ay moustiquaire dañ koy hmm. dagg di ko sangoo eh, ah waaye Adja lan lay wax nii wala it te ba tey ba tey pare guñ ci ba tey pare guñ ci ba tey pare def nañ ci tamit ay yeneen recherche gis nañ ci ba pare te sëy <laughs> naa te xoolal ba tey pare guñ ci parce que euh, gis nga ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Guet Ndar bi wax na ko dañuy jël ñoom euh, filets yi mooy maanaam li ñuy li ñuy li ñuy mbaal yi jënu pépé yi waaw ah. dañuy jël baxal ko def ci eau de eau javel di ko sangoo loolu la ñuy sangoo ñoom kon seen kay rafet na <laughs> dëri tax te it te it dafa dem ba dafa am lu mu gàllankoor parce que prisonniers yu nekkoon biir Saint-Louis dañoo defoon benn initiative boo xam ne dañ ko bëggoon def mooy di di ñaam di ràbb ay ñampe di ko jaay handicapé yi nekkoon foofu aussi doon rab ñampe di ko jaay mais dafa dem ba loolu jaratul mm-hmm. parce que fii la yooyu noonu la di jëlaat di ko jëndaat ci ñoom di ko defaraat Euh, cuub ko di ko jaay ci marché yi ngay gis nii. Ah, ci gendar la jóge mi kat ñam bi mettiwul saako soble bu jeex boo ko jëlee d'accord. tey tey leena li ci gën a graaw aussi mooy que ñoom ñëpp duñu tëddandoo benn heure. gendar saa fa demee day mel ni bëccëg la. comme la quoi ñii dañuy nelaw parce que. kër da ngay benn kër plus de vingt personnes dëkk fa.

ndax dañuy dund lu métti métti métti ba seen mool yi parfois da ngay gis bu ñuy takku bu ñuy takku pour pour dem euh, géej dañ fay def ay 6 mois 1 an le pourquoi ñoom mun nañ takk jabar jabar ji day am am doom ñu doog a xew sa doom mun na am 5 ans 6 ans ñu koy doog a ngénte te ñuy ngénte mi ngi dox di wax mi ngi dox mi ngi wax te boobu lañ koy doog a ngénte balaa ñuy dugg ci loolu mm. dëkk bu amul sangu ñàmpe dëkk bu amul wax na dëgg Gendar man chaque que fa laay vacances ah nag Seydina nag Seydina dem na fa seen koñ foofu boog ñu fa nekk dañoo doon Seydina sax. damay nangu dem Saint-Louis lu bëri tout le temps euh, damay euh, passage rek ma nuyoo la waa famille merci ndeysaan di leen jaale seen baay boobu ñoom tout le temps ñoom mooy yóbbu foofu. chaque mémorial ñoom ñoo dugal ci oto yóbbu ma foofu dalal ma hôtel la preuve en est que daaw ba ma fay dem DTV laa àndaloon rappelez-vous du dëgg ta gendarme man jaaxal na man gendarme mo fa demee li gëna a marqué ci gendarme moy kenn ku xéss la fa gis te la bitig la yor bitig la yor gendar dalay wone rek lolu dekk le bu lébu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg le bu la te li Adja wax leg dëgg la ñaam bi ñuy rab xamal lo yor non non man ragaluma limay wax ci télé la ne sénégalais la comme ñom dañ ma ëpp dara fofu dañ fo dëkkee rek ba jël mu rek ay mbokk yi nek fofu nonu hmm. li ngay wax ni ñampe yooyu ngay wax ñi koy défar prisonnier yi c'est vrai dañ koy defar diko jaay ki fa dàq oto gendar lay defar ki fa dàq oto ñàmpe lay defar ak gal la yor. kon marché bu xam te gouvernement bi jëm leen yëkëti ba tay jëm mm. leen yëkëti bay mënu ci dara parce que way la. Mm. ñoom nag xaaruñ dara lu neenañ ne bi lañu xaar mu mur leen ndax fofu kenn du leen fa jëlé deug la te leena fofu bo fa démé sa yaram day daw. Mm. bo day gor deug deug deug sa yaram day daw. xam nga prison nga gis mais am ay prisonnier VIP te loolu pour man prisonnier VIP la te lenn dëkkuwaay boobu mënu ko mënu ma ko gis boo rombee da gis population bi. Ah. n'importe quelle heure mën ngaa dox foofu kenn du la agressé parce que ñoom tout temps ñi ci mbedd bi. sa yaram day daw yow boo ñëwee li ngay dund Dakar. Mhm. te malgré sax yow tam yéenay bokk dundin rek mais li ngay dund fii. Ah. boo ñëwee da nga benn la mais boo ñëwee da gis le plus pire moo tax nit war naa sant yàlla saa ne. ñoom fa ñu nekk ñoom fa ñu ne mhm. xol ma nga

jumaa ji ñu bëggoon jumaa ji mm-hmm. loolu ñoo ko fekkee nii suñu kanam mm-hmm. da ngay gis sax euh, euh, nit ki day dem ba jël kii bi dem bay bay bay waajal toj wàññeeku waat wàcc mm-hmm. wàññeeku donc mu nekk ñi nga xam ne dañoo booloo ñoom ñe nañ euh, nekkul ay ay d'important duñ dund loolu mën lañ dund mbooloo mooy doole te dañoo gëm ni aussi peut-être amuñu dund ba gën peut-être amuñu lu ñu bëgg lépp mais ñi ngi am jàmm ñi ngi am salaam waaye it man li ma ci gën a metti daal mooy xale yi nga xam ne ni leen na xoola xale yi ay ay dix ans onze ans lañ am xamuñu sa fan la yoonu école féetee mm-hmm. euh, loolu daal moom a gën a metti ndax kuñ ci laaj rek euh, lan la ñuy wax dundal njaboot gi lan nga war a dundalee njaboot gi géej gi mm-hmm. te it euh, kon bu ñu amee lool dañ leen war a jàppale licence la ñu soxla nee nañ pour que ñu bàyyi leen ñu mën a accéder ci frontière Mauritanie mën a daal di napp seen i jën ndax loolu lañ xam indi ko fii jigéen ñi jaay mais boo demee nii xalé jigéen ñaa tok fi fii yaangi tok fi toog fii ngi toog grand place bi ñepp ñu ngi tok donc du coup war nañu xolaat bu baax baax gouvernement bi surtout dama koy lancer message gouvernement bi. parce que man mi fa démon waxtaan na ak ñom j'ai failli même pleurer parce que li ñu doon wax dafa daw yaram franchement dafa daw yaram. donc du coup euh, ñi ngi ñaan rek gouvernement bi bu nek ñu ngi sétane ndax ñun it lii la am ñoom it euh, ñun lañu am. donc dañ leen di dañ leen di dañ ñaan gouvernement bi ñu jàppale wa Gendar nee nañ leen lañ bëgg ñom mooy euh, ñu am li nga xam ne moom moo di licence ñu mën na dem ci géej gi ndax géej lañu xam. mën a napp ci anam yu moo gënee da la rek daal di def revue de presse ànd ceex Seydina wala revue des titres. Mhm. ah Seydina. waaw revue des titres mooy li ma wax yéene kaay yëgle kaay leen a mbay. ñu commencé ci quotidien waaw ñu commencé ci pour ferrer le PS dans Benno Bokk Yaakaar. waaw benn benn bokk yaakaar nag leen a mbay dañuy wax ni maanaam boog diggante bu ratax bi am ci diggante Macky Sall ak Ousmane Tanor Dieng maanaam seen bëñ yi signe bi dafa ëpp trop trop trop trop trop fu ñu tase ñoom ñaar reetaan reetaan boobu la la Sénégal yi bëgg a xam reetaanu lan la xam nga Sénégal dafa dañ kumpa waaw reetaan boobu a xam ndax reetaan bi daal lan la daal lan la daal a rak lañ di mm-hmm. waaw bëgg nañ xam nag luy reetaan boobu lan lay jëriñ daal ba tax nañu bëri sax nee nañu Khalifa Sall dafa beddeeku ànd ak ki nga xamante ne moo di euh, Bamba Fall Babacar Diop ak Barthélémy Diaz waaw Khalifa Sall ànd na ak ASCM e comme ma koy waxee rek Babacar Diop Bamba Fall ak euh, Barthélémy Diaz comme ni ma lay waxee yon yoy nag ñu jël mën naa nekk yoonu xaxam parce que leneen mbay nañ wax na da nguur kën du bëri mom nguur boo bëri mom rek da ngay daanu lu dëgg Ousmane Tanodien lu ko waxal war ko mëna jox cër ndax il fait mom moy deuxième personne PS ci aduna bi hmm. waaw way mag la nak de wala waaw ah mais mag la leneen mbay xana xama magatum gayna dana mën foofu waxaan baanam bukki ah. mag la amna lu mu denc amna ay ngalajo am waaw kon na tok nak di xalé di conseiller xalé pour ngalajo yi dëgg la mais xalé nak nga xalé bu yemee place xalem rek mag mag mag fekk ci ko mais nag boo dee xale bi di buuxanteeg mag mooy li ma lay wax rek. ñu jàll ci jël ngay doon. jox ma ko tijjee ñu ñu jëm ci mbirum Barthélémy Diaz. parqué par la justice waaw Barthélémy léegi dañu wax ni maanaam boog le 11 novembre lañu la maanaam boog la ñuy xam fu dëgg féetee ndax fan yëpp ni ñu koy dégg moom da mooy fi mu ne nii kii ëpp buzz am ni ñëpp bëgg nañ ko. Mm-hmm. coow li coow li coow li Barthélémy Diaz dañ ko waxante nag dëgg am na buzz waaye nag Barthélémy lee na Barthélémy bëgg na coow mm. bëgg na coow trop trop trop trop. man foofu la la xam nga ni koy woowee est-ce que. ah xam nga ni ñu koy woowee. ni ñu koy woowee. jagboor. waaw jagboor ba tax na moom boo mairie bi musuma gis picc bu fa tax wala muus ndax boo fa taxee a ngaa yaakaar ne foofu tiir sas moo fa am ak wala wala ay tiira de liggéey fa ne ndax foofu man bi ma wax yow musuma faa jaar leneen bi loolu amee ba léegi jaaruma fa. waaw kon nag Barth euh, si national musoo faa jaar. musuma jaar foofu. waaw du ma fa jaar surtout bu ma jaaree ba gis kes boobu fëkk fetal ba sama yaram day daw fu may pigeloo crise daal waaw daal du ma fa jaar waaw. ñu dem ci wàllum Petro-Tim tamit wàllum Timis euh, corporation am na nañu problème fële ci Burkina. Timis daal ba léegi mi ngi ko ne di def ay miram. Timis mi dafa mel ni kat mi ngi baaj a timisal Afrique bi leen a mbay ndax mi ngi Burkina bu yàggee mu dem Somalie wala Angola. Ah. ndax fi mu ne nii Sénégal ne problème mu Sénégal bi jeexagul sax ma ngay songi waa Burkina. Mhm. Timis mi kat am lu mu bu yàggee ñu géej ñu ah, waaw timis am na lu mu ngeen boo de leena <laughs> ci wàllu waaw am na lu mu ngeen lu tax ma ñëw fi boo xool ñëpp ñëpp ñëpp seppi eh. leen jël met laa juf ànd ak moom kon timis lii nii am na fu mu ko teg timisam bii nañ ko lijjanti nag ba xool lan la. balaa géewe di jot waaw. <laughs> Eh, gis nañ tamit ci wàllum doing business Sénégal place ba mu jëloon eh, romb na ko maanaam mm-hmm. mi ngi teg ay jéego ci wàllum boobu laataa ñuy dem làmb ja doing doing business. doing business waaw. waaw Sénégal. Mhm. place bu mu jëloon. waaw ci wàllum business daal ci wàllum business waaw ak wàllum affaire. fii teg naa ay ba romb li nga xamante ne moom la ñu. xalaat fii dëkk businessman la leen a béy. lan nga fii la wal joojo Njaay jaar. Mhm. fii la kilifa yu mag yi jaar. wal joojo businessman la. non déedéet wal joojo ñëpp du businessman mais maanaam dama la bëgg a wax ne boog maanaam dëkk bi yàgg yàgg nañ ci loolu ñun. dëgg la yàgg nañ ci loolu ñun leen. ban businessman nga fi xam. fii businessman ñu fi xam du tudd seen tur bëri nañ. mais bopp rek businessman man la eh, bu eh, ma day jël exemple boobu businessman bu mag a ngi nii toog. ci lan ngay business li ma la mën wax daal mooy Sénégal daal ma ngay dox nañu def ndànk bu ñu xar dëkk bi dëkk bi ñun ñëpp benn lañu nañu xool liy doxal dëkk bi ñu koy jëfee leen mbay mm. bu ñu yàkkamti dëkk bi dana dox mm. dëkku Afrique la lañ ne mm. boo xoolee am na dëkk ñu ëpp xaalis su nekk ci biir Afrique fii du dëgg te xoolal ni ñuy doxee rek ñun nan la ñuy doxee rek Afrique a mel noonu yàlla moo ñu teg natt boobu nañ ko nangu nañ ko nangu. waaye bu ñuy waxee waaye am na ñeneen ñi ne nañ dañoo raté seen pari ci wàllum doing business 2017 bi parce que li ci yokkute courant ak fiscalité bi ba léegi mi ngi fi. waaw waaw lenn ah, yokkute courant beeg fiscalité bi loolu soxal nañu nag wax dëgg yàlla parce que ñun ñii ñëpp bu ñu dul ay parents ay parents bu ñu dul ay parents ci kër yi boobu ñun mën nañu wax ne kilifa lañ bu mhm. dëgg loolu bu ñu ko yokkee dañuy dañuy am njaaxal parce que mënoo seetaan sa yaay mu tiim facture boo xam ne nii facture bi di ko bëgg a rey wala mu ci am njàqare tiim ko ni sa yaram day daw. du dëgg dañu wax dañu ñëpp am nañ suñu yaay am nañ suñuy kër bu facture ñëwee sa baay sa yaay sa day yëkkati na xoolal ma da nga rusa wax yaay lii moo nekk ci facture bi. man bu facture ñëwee sama kër damay am problème pour wax yaay cent mille wala cent cinquante mille la. dama koy nëbb nag ko garaaw dinañ ko fay. kon nag métti na trop ñu ngi souffrir bu ñu xooloon bu ñu sañoon daal vraiment ñu dimbali ñu te xam ne nag wax dëgg yàlla dëkk bee demee noonu waaw dëkk bi daal waaw na kong kong kong da nga sax rusa wax. waaye Seydina sax ñu ci parce que li nga xam moo di suñu euh, jant gu gu rafet gi di ko def courant. donc nee nañ loolu bu xasee ba taxaw ba nekk en place lépp. Mm-hmm. courant yi dina wàññeeku bu baax. waaw waaw damay ñëw ci loolu sax parce que am na benn Sénégalais bu fi jógee États-Unis fii. ay kon djugé fi dem ba Guinée ak Mali difa installer installé te pourquoi installé wu ko fii te Sénégalais la kon nak loolu jaxal na ma quoi vraiment leen bay ah, parce que buñu ñu mu def ko fi ñun ñoko gëna soxla fouf bo bo boo yéegee ci avion djugé tukki di wacc fi Sénégal bo timé dëkk bi da nga yaakaar ne sax dañuy souffler gâteau ay bougie lañ taal ndax ndax ni mi lampi ni mi défé ni ci dëkk bi du bëri boo yéegee ci avion di wàcc da nga yaakaar ne ñi soufflé buusi la kon nag war nañ xolaat bu baax a baax baax wàllum courant bi daal dimbali ñu si dëgg la nañ jeexale suñu làmb balaa ñuy tàggox yéen nee nañ Tapha na saison blanche est-ce que jar na ñuy koy eh, njottal Tafatin moom taxawaayam tamit mu duma ma sax wala mu koj ma sama waaye Tafatin c'est un place am nii kanam la jëm du jëm dellu ginnaaw. waaw ndax lan. waaw mais làmb mel noonu. réeru ñaami la ñuy te it dañuy année blanche dafay dafay tegaloo. daal wax ma sañoon takk ribam bi ko fi wàccee di ko fayal douane waroon naa mën a laaj transitaire ba pare ndax jig na ko wala ko takk ribam bi lool lool moom moom muy takkal nit ñi moom mooy takk ci moom mooy takk chaque jour daal bu ñu sañoon daal wax dëgg yàlla moo xalaat takk ribam bi daal waaw. waaw léegi waaw ñu tëjee ñu ngi wax tamit ci ni. Euh, Assane Ndiaye. Assane Ndiaye muy Gris Balla. waaw Gris Bordeaux Gris tamit est-ce que moo Tapha Tine bokk. boobu est-ce que combat boobu. waaw Gris Bordeaux ndeysaan nag ndeysaan Gris Bordeaux. Hmm. xarit bu baax ji le ay mbër lañ na xaar ma xool lu ma ciy wax. waaw wuy ma ñoom ñaar dama ne est-ce que combat la am na lu fi waxoon. Seydina Père Mbaye Gueye am na fi wax ne on tire pas ah, cadavre. waaye daa fi mu cadavre yàlla yàlla mi Seydina mi waaw Seydina combat boobu est-ce ñoom ñaar Gris Bordeaux Balla. ah suñu see euh, Gris Bordeaux a Balla Gaye euh, présentement nii déglu rek ñoom ñaan ñëpp daal dafal ndànk daal ñoom ñaan ñëpp ay naataango lañ war nañ bëre mais ñoo bokk classe fu dëgg yàlla foo ko gisee war a seen Balla Gaye foofu mm. ñoom ñaan ñoo bokk problème bu dëgg man problème la ñoom ñaan ñoo bokk problème fu ne nii buñ nañu wax na dëgg bu doon ci école la bu doon ci école ñoom ña nga CP daal wala CE ah bon mais Seydina boo doon boo ko doon pronostiqué rek yow lan nga lan lay mu daan da ci am ndax giri xam nga ni giri bëro tout temps nag dama wax rek giri bëro tout temps buy bëri da nga gis ni day am problème de genou ay tarxis da koy yomb sax giri bëro tarxis da koy yomb kon daal yow booy pronostiqué rek naan kat appi moo gën ragal ci ci ci kii tarxis da koy yomb te Balla singom tam yomb kon war nañ ñaar waaw yàlla ci leneen. <laughs> Ah, <laughs> mais Modou Lo bi nag combat Modou Lo bi Modou Lo Lac de Guiers. Modou mag ah? oh, Lac mi ngi wax de. Modou Lo bu neex nga noonu ñu fisale ko suñuy mbokk fisale ko muy bawal production. Mm-hmm. di combat bu neex vraiment Assane Ndiaye. ñu koy ñaanal li mu sumb nii yàlla na ko ci yàlla may jàppale. mu mën ko égal ak jamm ndax su mënul rëy dafa innové parce que ku daan teug Iba Mar chaque jour ba tay nga xey Demba Diop ko wax deug yalla bëgg nga sa dëkk waaw yeen ko ñaanal une bonne continuation. mais mais mais ces combats là. te saison bi dina neex ndax aussi dina am euh, combat bi nga xam mo di ness ak euh, satiès Thiès it seen combat. taxaw ness tamit moom tamit dafa melni ay xalam nga gëm de. wax na ko kër ak fan yële ne la ness dina fi is back ness new look ness bu bes te ba léegi gisaguñ ko. li fi dajji lepp xomat ness nak war nga xolaat sa bop yaangi dajje xalé bu am passif Sa Thiès yaa ngi daje koo xam mag ji nekk na roi des arènes baay ji nekk na roi des arènes yaayu Sa Thiès si natt bu mu bokk sa sa weer mooy teggi moytul nag moytul bu baax ka ngay tasanteel ñëwal. te insolite la ñuy tëjee lii di grâce matinée moom dañ ko jàpp ngir trafic d'espèces protégées da jaay ay deru nag lu ci toll 106 deru xar sa euh, gaynde du moins ak yeneen. Euh, rabu mbirum rabu àll daal moom day jël rek daal di jaay maanaam. waaw kii tey suba rek ñu ngi koy waxtaanee boog ci gàttal rek man su ko doon jox tur. dama koy tuddee almomin almomin production laa ko tuddee almomin pro. ndax kuy jàpp ay gaynde di leen rey kooku da ngay nekk producteur de simb wala promoteur de simb rek kenn ñemewul gaynde waaw ñii nga xam ne ñoo fi ne eaux et yi sax buñ koy jàpp danañ def journée soog koo jàpp xool liñ koy def bàyyiwaat ko mu dugg ci case moom nag mu leen di song di leen rey kon ki yaakaar naa ne daal maison de production président ne fii dañ fàttali ko nit ñi dëgg la mercredi ba léegi ma nga poloñ ma nga poloñ doon dox tukki nemmeeku mhm. sénégalais yi fa ne poloñ nag mus seeda yàlla mus ñoo am président bu dem poloñ dëgg di dox mbokk Macky Sall moo ko fi njëkkee Sall ngaare góoru Mariam fay Sall waaye nag nit bu mu fa jëlee dara bu mu fa ñaan ndax poloñe yi dañuy topp nit bu mu sës dañu région yi nañ ñu xaar Grasse Matinée yéen ñëpp la fi nekkal société wax dinañ dem bépp bi nga xam ne rek ngi fii ci Sénégal eh, jërë na Macky Sall def dara bu mu fa bu fa leb loolu loolu population ndax population Pologne si ba sa dégg nga li Bouba wax fan ni ci wàllum Pologne Pologne yooyu kenn du leen tooñ ñoom ak Russie nañ leen bàyyi fu ñu nekk rek na dem visiter rek départ naataangoo ma nga fa point final Leena bay ba samedi prochain ci beneen numéro Grâce Matinée. Ah. Menuiserie Khadim Rassoul vous a offert votre émission Grâce Matinée.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 ñooy am mbégte ji leen woo ci bésu sant yàlla bu fas nañu yéen a amal ka naka talaata benn fan ci novembre la commencé ci 9 ci suba ba 2h ca stade Maris Ndiaye ay borom xam-xam yu ñu ràññee daañu fa waxtaanee maana a ngëneel yi nekk ci zikar اجي نكتي لا اله الا الله اك استغفر الله اك الحمد لله جماعة الحمد والشكر لله دي ديجلا وقتاني تي اي ذكر كي اكي باك جميع تي برم سبحانه وتعالى اجي ننتم محمد صلى الله عليه وسلم صلاة التسبيح دي جلقو ام صلاة صلى الله عليه وسلم موكو باخي وون خير دانيو كفا امل ñu jeexale jotaay bi ci ñaanal way dawle yi njëggalal yàlla ak yërmandeem ñaanal sunum réew jàmm ju sax dëkk ak ak yokkute ak mboolem adduna bi yëpp talaata lay doon benn fan ci novembre la commencé ci 9h jàpp 2h ci stade de Maris Ndiaye groupe Excaf di ci woo mboolem jullit ñi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Mais il ngi nekk cité 2 en face mes municipal si n'y arrive liberté 6 yi woo leen 33 867 55 00 Doja fait. alhamdulillah vous l'avez vu sur scène en compagnie de Wally Sek, en compagnie de Viviane, en compagnie de Carloudi, en compagnie de Kurgi, de Takaifa, du groupe Khalam, de Elzo, de Daradi Family, à côté de beaucoup d'autres grands noms de la musique sénégalaise, auquel le le cœur gospel Kangeli. Le cœur gospel Kandjili organise un spectacle inédit, un gros concert ce samedi 29 octobre à partir de 21h au Grand Théâtre National de Dakar. Ce samedi 29 octobre, cœur gospel Kangeli, au spectacle inédit au Grand Théâtre ce 29 octobre spectacle boo xam Kougis, 100 ambiance gospel par un monsieur Maxime Jean Simon Diaye, secrétaire général de la présidence de la République monsieur Jean-Pierre Senghor coordonnateur national du PRODAC monsieur Manik Ndiaye ministre